ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka borom Tuuba ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Tuuba jébbal ko jàkkaya sa koo jàkk taxaw fa ganaam dëkke si kartana barke borom Tuuba dëkke si kartana barke borom Tuuba dëkke si kartana barke borom ku gis xutbub jamono bu am fi yow ka liiw ca jiital leen borom tuuba xëy di gis ko te lii jagleeg borom tuuba te bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànneefoon borom ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom tuuba ko jàkkaaya sa koo jàkk taxaw fa ganaam dëkk si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke ñooyay ku gis xutbu jamono bu am fi yow ka ca jiital leen borom Touba mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te lii dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànneefoon borom Touba ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Touba jébbal ko jàkkaaya sa koo jàkk taxaw fa ganaam dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana barke borom ku gis xutbub jamono bu am fi yow ka ca jiital leen borom Touba mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te lii bu dee jib déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka borom Touba ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Touba jébbal ko jàkkaya sa koo jàkk taxaw fa ganaam dëkke si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke borom Touba dëkk si kartana barke borom Touba te booba ñooyay ku bu am fi yow ka ca jiital leen borom Touba mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànneefoon borom Touba ci kaw sëriñ si ñu ak kaw sëriñ si xam te noo fi jébbalu xëy jiital borom Touba jébbal ko jàkka ya sa koo jàkk taxaw ganaam dëkke si kartana barke borom Touba dëkke si kartana barke borom Touba dëkke ñooyay ku gis xutbub jamono bu am fi yow ka ca jiital leen borom mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ya rabbi lisrah fi dawamin sadri sarhan bihi akunu misla badri rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki julli di mbokki taalibé yi mbokki téléspectateurs yi seetaan Touba TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziare di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha sun borom yàggal ko fi lool te mu wér di nuyu mboolem kilifa yi diine yi ci réew mi kenn ku ci nekk noo lay fekk fa nga nekk di la jox wàccuwaay wi nga amee euh, dellusiwaat ak yéen ci seen émission kenn du sëriñ bi euh, di ci nuyu baax jëwriñ ji mbàkki yu fay sëriñ Cheikh Balla Samb sëñ Jibril Ndaw sëñ Mbàkki Mbodj ak mbooleem ñi ngànk télévision bi yëpp ñoo ngi leen di ziare euh, di am mbégte bu baax a baax ci àllarba ju yekk ju nekk mbokki téléspectateurs yi jàkkaarloo ñun ci seen écran bii di Touba TV Euh, nuy waxtaane nag euh, sëriñ bi ak euh, xasida yi waaye di waxtaane ñenn ci mag ñi nga xam ne ni dañoo àndoon ak sëriñ bi ci liggéey bi waaye àllarba ju nekk ñu koy feggoo ak sëriñ Abdoulaye Diop Bichri xaadimul xaadim ñu di ko ziyaare bu baax a baax di am ci moom mbégte ci bu ju nekk ñëw fii jàkkaarloo fas yéene waxtaane sëriñ bi waaye itam dolli konte ci li nga xam ne ni mooy mbindum sëriñ bi ñu di ko ci ñaanal bu baax a baax yàlla defal ko ci tawféex defal mu ci itam tawféex ak mboolem ñi nga xam ne ñu ngi koy topp saa su nekk euh, ni ma koy waxee nag xam nga si yeblaay nag moom day grand bu noggutuwaate wax naa ba tàyyi suñ seex seen euh, raaya ne ko nañu nañu jéngu def kii euh, nu mu tuddati def def mars waaye tubaarkàlla sëñ Cheikh nanguwul ñu def marché bi waaye ñu ngi koy baax moom sëñ Cheikh seen raaya di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex tey jii nag sunu émission kenn du sëriñ am ñaari gan yu mag maga maga maga maga a xam naa ne Euh, gan genn gan gi euh, am nañ am nañ gan gu dugg si léegi muy sëñ Cheikh Balla Samba ñu ngi koy ziare léegi nii euh, di am ci moom mbégte ci liggéey beeg ni muy tëddee tey nag noo ngi dalal Serigne Malick Fall xasida bu Touba Serigne Malick Fall ñii dañuy wax sëñ Malick Fall moom Cheikh Sidil Mokhtar jàpp naa ne moom lañ ko gën a xamee ndax ni ko Cheikh Sidil Mokhtar bëggee woon ak fi mu ko tegoon ak it ni mu daan dégloo am njàngam mu mën a jàng lool Eh, mës naay waxtaan ak jëwriñ Alaaji Mbàkke yi mu ne ma waa kii invité leen ko bokk dafa mën a jàng eh, dafa ngaa bokk ci ay jàngkatam kon tey eh, jëwriñ Alaaji Mbàkke yi fay ab jàngkatam laa invité Baye Cheikh Samb it gëj naa dugg ci émission bi yàgg na yaakaar naa war na man war na man at <laughs> waaye tey moom ñëw na te xam naa yaa ko wàcce moom ndax bëgg naa xam yaag yaag yaag Sëñ tey nan ngeen di laqartee xasida gi ñu di ko ziyaare baax mu jóge tubaa ñëw fas yéene àndandoo ak ñun ci émission bi Eh, ma jàkkaarloo nag tey sama manager sama manager sunu conseiller maak sëñ sëñ Saliou Samb maanaam ñun ñëpp lañ noggutu waaye ñun kii moo nu noggutu sëñ Jili Lam <laughs> ñu di ko siyaare bu baax a baax eh, muy sunu xarit nag di nit ku baax ku bëgg xaside yi nga xam ne même bu dul émission bi sax day jàkkaarloo nun di topp jataay ba mu jeex ñu di ko ñaanal sëñ tubaa defal ko feex sàmm ko may ko mu yeggale eh, tey moom waa Gàmbi gépp xam naa ne danañ seetaan tey émission bi tey nag sëñ Ablaye damaa bëgg bu ñu ubbee tuuti ba waxtaan Eh, eh, dañoo benn borom xam-xam boo xam dama ko ne danga may daaneel ndax eh, weeru gàmm moom du ma bëgg a gis ku dul sëñ Modou Ndiaye Assane ndax ni muy décortiquer li nga xam ne mooy xaside sëriñ bi muy sëriñ Modou Ndiaye Assane mi nga xam ne moom ngeen baaxoo gis muy ànd ak sëriñ Khadim Ndiaye tasawuf ci émission bu mag bii di daara ji muy boroom xam-xam di kilifa itam di ko woyof nag di ko woyof lool te baax ñu di ko ziyaare bu baax a baax di ko ñaanal tawféex sunu photographe nga xam ne fas na yéene àll ba na Euh, muy sëriñ Malick Thiam ñu di ko ziyaare bu baax a baax moom xaside yi la bëgg lool ndeysaan ak di dund itam sëriñ bi ñu di ko ziyaar di am mbégte tey ñëw gim ñëw àndandoo ak ñun jotaay bi euh, tey nag xam ngeen ne émission kenn du sëñ bi ab taaliba cheikh a ñëw seetaan si émission bi nag lu jafee ngi noonu euh, taaliba cheikh yi sax dañuy bégee émission kenn du sëñ bi soxna Fatmata Diallo ndeysaan nga xam ne moom ci njabootu Cheikh Sidaji Malick la bokk waaye dafa may wax ne àllarba ju nekk yaag sëñ Abdoulaye Diop Bichri du ma leen tardé tey nag daf maa waxoon ne bis dana jot moom dama leen di bett ñëw ci émission bi euh, loolu moo waxoon nag def na ko ñëw na tey ci émission bi fas yéene seetaan lool nag wax dëgg yàlla lu neex la xam naa ñoom sëñ Abdoulaye bu samaram ña ngi ñay reetaan ndax match bi gars yi amoon barki dem fële ca Amérique dégg naa doy na waar diggante Tidiane yeeg Mouride kéemaan la waaye tey nag euh, mooy contrôler émission bi soxna Fatmata ñu am mbégte bu baax nag ci teewaayam ci euh, ci plateau bi dëgg yàlla ndax loolu mooy wexda ndax bennoo sëñ lu am solo la tey jàpp naa ne loolu la wane tey jii ñëw euh, am nañ mbégte lool ci teewaay mu ànd ak sunu xarit sëñ xaadim bi nga xam ne sëñ xaadim Fall euh, moom it xasida yi rek moo ko ñor ak ak ñiy waxtaan sëriñ bi ak ñuy dund ci yoon wi ñu di ko ziyaare bu baax a baax euh, sëñ Ablaye balaa boobu ñu ngi gërëm bu baax a baax Cheikh Niass Fadal Couture sëñ Dame ñu ngi lay nuyu sëñ Dame di nuyu sëñ di juuf sëñ Mansour Gueye jekk baylaat tey sëñ Cheikh ñas moom la ñu àndal ci baylaat bi xam naa nee naa ko moom bay boo nga def ci yu baree baree baree bari sëñ Cheikh di ko ñaanal yàlla taxaw ko sàmm ko mi ngi noonu dina affiché ci écran bi ñu di ko nuyu bu baax a baax a baax euh, ku ne xam na taxawaay bi muy taxaw ci ñun moo Serigne Fallou Sey Lambaye Couture ak ku mel ni sëñ Kamal Niang waaye sëñ Cheikh ñas euh, yow moom dañ lay beral sunu cant ak sunu ngërëm euh, mi ngi noonu tubaarkalla di jàmbaar lool buñ buñ mënoon a wone grand bii sëñ Jili Lam sol danañ xam ne sëñ Cheikh jàmbaar la bëgg naa nag nga ñawal bisri boo xam ne moom spécial lay doon Euh, numéro mooy 77 096 17 16 096 17 16 sëñ Mansour Gueye may laaj numéro am léegi euh, tubaarkàlla waaye mi ngi noonu euh, muy sëñ Cheikh Niass Fadal Couture xam naa sëñ daam dana ko affiché ci écran bi tey moonu habillé xam ngeen ne yàgg nañ ko tudd ci jataayu émission bi yàgg naa ànd ak ñun itam duñ wéttali ci mbeneen daje buñ mën a am ci sëñ Touba di ñu taxaw mook sëñ Fallou Sey ñu ngi leen di ñaanal yàlla taxaw leen baax a baax sëñ Ablaye dama lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi ginnaaw boo nuyoo bala ñoo dalal jànkatu xasaayit bi muy sëriñ Malick Fall bu Touba laataa ñu daal itam sëñ Mour Ndiaye Assane euh, bëgg naa ñu son ñu soññee ci ñaari ñaari mbir euh, benn mbir mi ngi noonu gis ngeen ko Fadal Couture sëñ Cheikh Niass numéro téléphone am ngi noonu 096 17 16 mu nga ca golf en face Las Palmas euh, sëñ sëñ Ablaye sëñ Basirum Cheikh Abdoul Khadir def na bari ki démb déclaration boo xam ne nii mi ngi ko def ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha ci doxinu dëkk ba ak ñi nga xam ne ñooy wuyoo turu sëriñ bi mu mel ni keroog rek yaa ngi koy wax ci wolofal boobu nga xam ni eh, ñi ngi wax sëriñ bi lépp lu am po bokk rek sëriñ Tuubaa bokku ca sëriñ bi wax na bind na def nañu gis te wa te te te eh, def nañu gis te digle na lii moo ko warkat wàcc na musula may musula fa mu mel yëf yi nag des fois day dem ba yàgg day rax am na benn vidéo buy circuler ci internet bi ñoo xam ne dañ doon théâtre wala dañ doon def yu ni mel solin solin woo xam ne nii dëppoowul sax ak lislaam bay lëppoo ak yoonu murit yooyu muy yu mata wattandiku ndax nu xam ne ki nu àndal dafay wax ne dafay wax ne nabahtukum ma an ala kaddin bada lii xabla an araaridan mu abida lépp loo xam ne nag sëñ Tuubaa am na ko ci ngërëm rek nañ xam ne coono la ci daj door koo am ba fii ñu toll itam sëriñ bi ñam yaroon am na loo xam ñemee luñ ko ko te it luñ ci yokk bokku ci ndax yoon yi moom sëriñ baa ngi ko teg ci lislaam ci ay keno yu leer mi ngi ko teg ci topp sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba yoon wi egsi fii mu si yooyu itam di yu matam moytu ndax ay modification la indi yoo xam ne lépp lu mag ñi deful woon ci yoon wi rek mënu mënatu la mënagu la valable si yoon wi si yeblaay ndax dabaguñ leen ñun ba ci yokku leneen aw xel moom bala nga koo yokk da ngay dab ki ngay dàq ba noppi kon comme dem ñoom dem ñun dabaguñ leen nag mënaguñ mënaguñ cee yokk dara lu bees yooyu yëpp mu nekk yoo xam ne yu matam moytandiku la si yeblaay maa ngi lay nuyu baax bàyyi la nga yi aouzu billahi min ashaytan rajim bismillahi irrahmani irrahim in alhamda lillahi nahmaduhu wa nastainuhu wa nastahfiru wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayiaati amalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wassalaatu wassalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa nabiyina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yu tedd yi ni topp àllarba bu jot ci seen émission kenn du sëriñ bi nu ngi jël siwaat di leen jagleel nuyoo bu tedd nuyoo bu rafet nuyoo bu làmboo barke ak jàmm di ko yéene julliti àdduna bi yépp di ci jiital sëriñ Muntaqa Bachir mi tooge jataayu Cheikhul Xaddim yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko kàttan yàggal ko lool ci sunu kanam di ko ñaanal mbooleem njabootu cheikhul xadim gi waaye di ko ñaanal mboolem njabootu islam gi mm-hmm. di ko ñaanal réew mi di ko ñaanal mbooleem ñi dëkk réew mi mm-hmm. di nuyu bu baax sunu bunt ci sëñ Touba sëriñ Hamza mu sëriñ bu mm-hmm. ko ñaanal ngërëmu maamam di nuyu ak a ndokkeel borom kër gi alaaji ahmadu mbàkk yu fay di ko ziyaar tubaarkàlla ci taxawaay yi yàlla na yàlla sàmm ko uh, di nuyu bu baax a baax sunu nijaay seex bàll coro sàmm ni nga ko waxee rek muy kilifa gu neex a jaxasool mhm. di ko laabir di ko bëgg xam-xam mhm. di ko bëgg sëriñ Tuubaa nuru lool turandoom Cheikh Balla Coro mhm. ne ci tele bi uuf ñëpp téyal alaaji ahmadou mbàkke fay liggéey bi ci anam bu rafet yàlla nu gunge ba ca kanam a kanam ci barke cheikhul xadim amiin amiin ngi nuyu ki yor programme bi sëñ jibril ndaw nuyu sëñ mbàkke mbóoj ci réalisation bi nuyu technicien yépp nag bàyyiwuñu kenn ñoom sëñ daam ak ñoom sëñ mansuur ñoom ñëpp ñu leen di jagleel seen am mbégte lool nag ci sunu jàngkat bii di sunu soppe nga indil na ko tey muy sëriñ Malick Fall mu sëñ Sidil Mokhtar nu ngi koy dalal ak jàmm ci biir jataayam di ko yóbbante nuyoo ci sëñ Moustapha Mbakke mi toogee jataayu sëñ Sidil Mokhtar ak waa guy mindi gépp di ko bëggee bu baax a baax ak mboolem kuréel yi mu àndal waaye di nuyu sunu soppe sunu sëriñ di sëriñ Modou Ndiaye Assane nekk ci tele bi di sëtu sëriñ Daaru Assane Ndiaye nga xam ni tudd turam rek doy na xam martaba bi ko yàlla ràng boo ne sëñ Daaru Xasan Njaay rek ñépp ñi peeg yoonu murit histoire am ëskay lañ ciy teg ndax ñett la ñu wax ni Sëriñ Tuubaa wax na ci ñoom ni dund nañ seen àdduna ba seen àdduna mat ñu génn àdduna dem ci bàmmeel te tooñu ñu yàlla seen borom mi leen sàkk tooñu ñu seen moroomu mindeef mënu loolu ci àdduna muy sëriñ Mbàkke Kajoor di bàyyi ci sëñ bi sëñ Maamoor Jaara borom Saam ak sëñ Daaru Xasan Njaay ñett ñi wax na ko ci ñoom Euh, sëñ daaru asanit daana wax ni ñaari wagg yi ma yàlla jox de bu ndijoor ak bu càmmooy benn bi malaaka bi bind tuyaabaa ci nekk bi ci des malaaka miy bind ay tooñ xawma nag ba xam malaaka miy bind tuyaaba dina ma bind lam déet waaye bi bind tooñ moom mën naa waat ni du bind benn tooñ bu ma tooñ sama borom ba keroog sama dund di mag kon defe naa sàmm foofu la yem mhm. su nu amee kon sëtam mu sëtu ci moom di boroom xam-xam ne ci tele bi di fi taxawee ay jataay nu koy bégee mu dikk wéttal ñu ci jataay bi dañ koy rafetlu di ko ñaanal yàlla yàggal ko lool mm-hmm. nu ngi nuyu bu baax suñu soppee bële di soxna Faatumata Jàllo mm-hmm. sopp nu lool ngir diine diine damay wax ni xatul ku xolam xat mm-hmm. wala ku dimbalikuwul rek mooy xatal daray diine waaye ñi am tuuti clairvoyance ci mbiru diine ñooy ñi koy yaatal kër yépp benn la jëmuwaay bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam soxna Faatumata nag di nit ku baax ku am yëg fonk loolu émission bi du ko rate di ko jaarale ci sëñ xaadim Fall nga xam ni moom sëñ xaadim rek ku mu jaxasoo da xam ni ko baax la ndax jikkoom rafet na am na teggin am na taalibi bëgg na sëriñ Touba te mën naa sonn ci nit kon nu ngi siyaar soxna Fatima di ko dalal ak jàmm di nuyu tam suñu soppee sëriñ Abdul Xaadir sëñ Jiili Lam di ko dalal bu baax mhm. ni mu jàppee sama rakk ji rek sëñ Saliou Samb seen ànd rafet lool mhm. euh, mu bëgg lu baax di dox ci mhm. lu baax di dox ci xasaa yi dee sëñ Touba lépp yëg nañ ko yàlla na yàgg jëla nuyoole ak sama xarit sama doomu ndey sëriñ Seex seen bayax nga xam ni maag moom fu ñu jëm rek ñooy ànd danoo mel ni junni ak cinq mille jaxasoo ci lépp bi may ñëw moom laa àndal maa ngi la koy nuyoole di sant suñu mbokk mu baax ma la suñu soppee nuyu mboolem ku fi teew bàyyinu kenn waaye beral la sa nuyoo sañ xaamidul di la ñaanal nag bu baax nga mucc amiin amiin Diop ma dox fenn te yóbbantew ñu ma ay nuyoo ci yow wallaay wallaay di ma wax nuyul nu sañ xaamidun wallaay suñu soppe la <laughs> ndax moom buy wax sëñ Touba tayee ci mujj sañ Cheikh mais sama seede ndeysaan léegi rek <laughs> soxna su baax suñu wax soxna Faama Samb ndeysaan mu ni boo àggee nag ma ko nuyul ndeysaan ndax buy wax ci sëñ Touba kanam gi day belli da ngay xam ni li muy wax da ko bëgg wallaay da ngay gis mbégte mi am mu lay interroger ci sëñ Touba loolu nag taalibe yëpp di ñaanal ñëpp sopp la a sa jikko moo la ko may kon yàlla yàgg jóg yàlla sàmm la ñu ngi nuyu sunu mag ju baax jële sëñ Thiam nga xam ne yàgg nañ koo xam ci tànt yi sëñ Malick Thiam mu nuy photo yàgg na ci lool booba ñun ay ndaw lañ di waxtaani sëñ bi mhm. ba tey kon yàlla na gën a yàgg mhm. ñu ngi nuyu ñëpp rek bàyyiwuñu kenn dëgg la beral nuyoo sëñ Maxtaar mhm. Silla mhm. yére bu rafet bii ma sol moo ma ko solal ndeysaan mag ci sëñ Abdoulahat Silla ñuy doomi sunu yaay soxna Faat Mbàkke Ñas ndeysaan sëñ Abdoulahat Silla maa ngi koy nuyu di ko ñaanal dafa xir ci man daf maa wax sëñ Ablaay bu ma sañoon looy sol ci àdduna maa koy xotti maa koy ñawlu waaw te dama cee jox miraaran léegi dama ne ko tissu sax doy na mënatuma koo sol bari na ndeysaan bis bu jot mu indi ñaar wala ñetti tusi ndeysaan kon ñu ngi koy siyaar di ko ñaanal moom it fii ci marché waa kuréel kenn du sëriñ bi mhm. ndax danoo jug ci émission bi sëñ Hamidou mhm. ñoom ñu juggu ngeeñu ci dëgg la taxawal benn kuréel dëgg la ngir lépp luy saytu émission bi mu jaar yoon dëgg la ñu koy def di ko wax di ko xalaat dëgg la kon ñu ngi nuyu ñëpp soxna a Sow dëgg la ci jigéen ñi mu yóbbaale ñëpp dëgg la sëñ mama cuun ci góor ñi mu yóbbaale ñëpp dëgg la ndokkeel soxna Yaasin Bamba dëgg la xam nga bërki démb lañ ko tuddee woon bis bii ma doon waxtaan ci waroon naa caa ñëw Masaalikul Jinaan muy bisu sëñ Modou Gueye Kurus wallaay euh, Cheikh Balla Faali Jeng doon ko amal wallaay la ko doon amal di ko defal cant Cheikh Balla Faali Jeng maa ko doon waxtaane mu rafet lool nag ñu ngi sant ña fa teewoon ñëpp di leen ndokkeel waaye di yóbbante tamit nuyoo soxna Kinne Kinne Mbàkke Abdoul Ahad soxna Kinne maa doon waxtaan keroog bisu sëñ Abdoul Ahad bi ci këram wallaay même jëwriñ ñëwoon na mu rafet lool moom it ndeysaan ñu ngi sant bu baax di ko gërëm ak mbokk ya fa teew yëpp wallaay waaw sant ñëpp bàyyiwuñu kenn rek ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal wallaay la delloo kàddu gi incha allah ndeysaan jërëjëf sëñ Abdoulaye euh, ñu sant la baax a baax ci nuyooyu am solo yooyu euh, jàpp naa ne euh, nag ma nuyul soxna Faama man mi noonu la demee fu ma génn rek ana sëñ laa Diop Bichri lañ xam nga nag bu njëkk ba ñoom sëñ Modou Ndiaye ñoo nekkoon di noggu tubaate njaayeen yi ak sëñ Xaadim Ndiaye tasawuf ak ah, ah ay dégg nga ñoom sëñ Masamba Ndiaye alxuraan Masamba Ndiaye nga xam ne dañu doon napp ci alxuraan ji waaye gis nga ba sëñ Abdoulaye Diop génnee ñu ne ñu sant ñu ne Diop sama xol bi daa sedd bay bëgg a dee ndax alkalkalul yawma min nii saaramax jooba karxan li taw di xilli ahmadan jooba in abba aw xaaba xatta daara sa boadin falan yasaara la day naa xaw du max jooba moom ci sëñ daaru ji la ñu noggatoo ak yeneen bi tey moom di ñu noggatoo moom moom ca <laughs> tey moom nga firil ma tey faaw nga firil ma bayit boo xam ne dinaa la ko wax bàyyi bàyyi Cheikh eh, sëñ sëñ sëñ Malick ma bàyyi la nga nuyoo balaa sëñ balaa sëñ eh, Modou Ndiaye di nuyoo eh, dañuy wax nag ne yow moom xasida rek nga nu mën a ubbil su ko defee ñu door a jox sëñ Modou Ndiaye mu daal di nuyoo gan xasida nga nuyu nga ubbil door a nuyu téléspectateurs yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات ذات وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن rabbi bima yasraun asana fajaa bijaayi afdali man lillahi xat lajaa rabbi bijaahi afdali man lillahi xaar la jaa amdi li rabbin karim min laa sharika lahu wa zatriyal yawmanu ranzati an mala يختار من برا نجايت جلاء ومن وكرمني تكريما وكل لي من الأخنبري عني سريما قرانه قراء ودمد المصطفى عن كل ما سدات وداء بالقلخايا من جادهم بدا يا مالك من جل أن قوادين إرام جميع الورى يا ديم ردا موت ما قبنا أقلب من دار بجاه أفضل من lillahi xaddu la jaa ndeysaan jërëjëf sëñ Malick mu bàyyi la nga nuyoo ak eh, téléspectateurs yi ba ñoo dugg ci waxtaan wi waaw nu ngi nuyu Cheikh Muntaxa Mbakke xalifa Cheikh Ahmadul Xaddim di nuyu sëriñ Moustapha jëwriñ sëriñ Baara di nuyu sëriñ Abo Jaxate sëriñ di nuyu mbokk yi nga xam ne moom ñoom lañ bokk ak jotaay bi. ndeysaan ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan. moom suñu xarit bi suñu wëllëre xarit bi sëriñ bi nelawee daa téye sama ndeysaan sëñ Modou Ndiaye ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay wallaay wallaay amiin mm. mm, ndeysaan wallaay ndeysaan ndeysaan wallaay wallaay ndeysaan waaye ñu ngi jégalu bu baax yéex wallaay wallaay. ndeysaan. wallaay ndeysaan. wallaay wallaay. wallaay jërëjëf. amiin amiin. jërëjëf jërëjëf sëñ Malick Fall xam nga ni tey njaboot Cheikh Sidil Mouhtar gépp woote na. ah euh, sëñ Cheikh Ndiaye tàmbale ak sëñ Cheikh Ndiaye ñëpp woote nañ di am mbégte bu baax a baax a baax di leen ñaanal ndax teewaayu sëñ Malick euh, fii man yàlla daf maa dogal ma am euh, relation alaaq bu dox sama digg ak Cheikh Sidi Muxtaar moo tax fu ma toll dama ko ñaanal yàlla na ko yàlla dolli ay leer bu wér a wér te teg loxo ci njaboot gi di ñaanal sëriñ Moustapha moom Cheikh Sidi Muxtaar yàlla ko fi yàlla dëgëral te gën ko wéral sëñ xaadimati lay ma di ko nuyoo la baax a baax ak sëñ bu Diop ñoom ñëpp maa ngi leen ziare sañ moo Ndiaye ma bàyyi la nga nuyoo su ko defee waaw su ko defee nga nga nga nga nuyoo rek balaa sëñ Malick a jël ci xaside yi eh, ñu mën a mën a dem régi eh, kon kon waaw kon bisimilah eh, léegi su ko defee sëñ sëñ sëñ Modou maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo téléspectateurs yi xam naa tey nag damaa bëgg bu sëñ laay ñëwee ba décortiquer ñu première bayit yu njëkk yi ma bëgg na nga indil ma ay leeral ay sara ndax tey xaside gi ñuy waxtaane dafa am dama koy wax sëñ Ablaye chaque jour ma ne ko titrage yi sëñ bi di di soo xoolee soo xoolee titre xasida gi rek sëñ Cheikh faaw da ngay dugg ci biir fam baat yoo xam boo ko xoolee rek day mel ni nga romb cinéma ñu taf affice boo xoolee titre film bi rek foo jaar di nga jéem a gëstu film bi nu muy demee ak fu muy mujj sëñ bi nag titre xasida gi ngay xool rek bëgg a yër xasida gi bismillahi ik fi nii loolu nag jàpp naa ne boo ko xee faaw nga dugg ci biir te maa ngi jàkkaarloo ko ko maîtriser nag euh, bismillah sañ sëñ sëñ Modou <laughs> min charri iblisa xaytu qad naqulu baada li bitidaabil basmala walhamdi wa salaati suma alxawqala rabbi aynil abdu litimil qasda awnaka yaa muayin wa bika nastain wala xawla wala quwata illa bika yaa rabbal alamin bokki julli di bokki taal bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Hamidou noo ngi lay delloo ab nuyoo beral nuyoo ak ziar Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, ñaan sunu borom subhaanahu wa taala gën ko fi yàggal lool te wéral ko ndax sagub lislaam la dama wax sax yoon waaye sagub la ndax jamono bu nekk borom euh, loolu la yàlla dogal te nekkalu fi euh, kër sëñ Tuubaa rek waaye lislaam bépp la fi nekkal adduna bépp la fi nekkoon wéttal la ya mat na ñaanal suñu borom gën ko fa yàggal lool te gën koo wéral tëbb ko kàttan ba lim yéenee liggéey ndax yéene ji kenn ku ne xam ne ndax booy dégg muy muy wax da xam ne li li ne ci xol bi mu yéene ko lam yi sax mënu koo tudd moo tax daanaka waxam daanaka léeg la doo ko mën a xam kon loolu kenn xam ne yéene bëri yàlla suñu a yàggal gën ko dëgëral amiin amiin amiin di wallaay wallaay wallaay ngir bi ñëpp am na fu ñu fa muy jaar foo xam. Ah, am de. <laughs> wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay yoo xam ne jëm ni ci trasu xasida gi rek mhm. boo ko xoolee ni ko waxee da ko bëgg a mhm. waaye boo duggee bi ci biir nag mhm. da nga fekk yoo xam ne li ñuy bu baax dëgg-dëgg moo la koy jox te yooyu wax dëgg yàlla yu bari suñu laaj ko ci indi noonu siyaare suñu ni ko waxee suñu jëriñ si Cheikh Balla Samb tey ñu teew jotaay bi suñu borom gën koo jox kattan dëgëral ko ak mboolem ñi xam ne ñoo teew jotaay bi kat bii ñu itam noo koy dala siyaar baax askanale mhm. moom it ñoo ngi koy dolli ñaanal suñu borom gën a yokk yërmande amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin dëgg la dëgg la sëñ xaadim waaw mhm. ndeysaan euh, ndeysaan waaw foofu la dëkk fa la dëkk waaw ndeysaan kilifa la nag waaw kilifa la de. yàgg naa koo xam waaye li nga wax ci moom wallaay wallaay yàlla sofyan yow ba naa ko bàyyi xel. wallaay wallaay wallaay wallaay. Euh, islam benn ni ko dëgg la. sëñ Tuubaa mhm. salaatu wa salaam kon bu mbay mhm. mhm. moom amuloon lu muy visé allahu rabbi wa waliyi abada asamani min kulli man tamarada moom foofu la ne. isat bi kaw ni xat jaxaltu nafsi lakka wadiatan kat taxat si wallaay wallaay wallaay wallaay ak sëriñ bi ci abalante gu ñu doon abalante ay ay téere mm-hmm. ba yoo xam ne ni boo ko jàngatee da ngay xam ne ñii li ñu tuddee al aludd wal ixaa mm-hmm. soppanteeg mm-hmm. xaritoo dëgg moo dox seen diggante te yàlla rek leen eh, ba nga koy ba ko s sëñ Alaaji Maalik joxe bay di daf ko wax nag hadiyatun mujibuha tilaabu mahabbatin yaa ayyuha alxubaabu eh, fakke eh, lii kat ala adaama rabbuna lana xablal wisaal yaqilanaa wakafana charli aada wasaal aada wasaal waaw lii de addiye la ñu war a joxe sëñ mhm. xam ne nii cofeel ak mooy li ko laal mhm. moo tax ma jox la addiye téere yi mhm. sëñ Tuubaa koo jox addiye téere mu nangu ndax téere rek la daan loolu saan jox leneen lu dul alxuraan bi mu ne tegal ko kon koo ci addee téere jox nga ko lu mu bëgg mhm. mu ne ko cofeel ak ak mbëggeel moo tax ma jox la ko ndeysaan yàlla nu yàlla fegal ayu képp kuy noonu ak bu bëgg rox suñu diggante dëgg la ba ko sëñ jàppal ci kaw xam naa gaa yi naan micro naa leer ko tontu mhm. sëñ daam mhm. ko tontu mooy itam gis nga ko euh, bayit yi ma tàmbale ci jazaakumu xayral jazaa wa haabu waaw laa tartaabu laa tartaabu yàlla yàlla miy yàlla na fay ngeen ci fay am maanaam maanaam cofeelu sellu cofeel gi nga xam ne moom laa am sama diggante yow ñu mhm. amul bu ci ñun ñëpp mooy seen imam fa kay fa wal Moustapha mu jaabu loolu ku ko xam imaamuna da xam ne maanaam loolu rek lañu war a ci réew mi ndeysaan ndax ñoo seetoon réew mi wallaay wallaay jërëjëf ñu nuyu ñu sant ko baax a baax moom xam nga day sa àjjuma nekk ñëpp toog rang wër ko ma xool ko rek ma am cofeel ci moom ma ne yëg naa ci moom loo xam ci sëñ Saliou rek laa ko daan yëg moom sëñ Abdou Karim ndax dama xool gis ñi muy xoole nit ñi di xool nday joor ak càmmoñ ku ne mu dala xool ma gis ne sëñ Saliou daana yërma daana yërëme noonu mbooloo mi ba mu yóbbee ko xaal te loolu yërmande la sëñ Ablaye xëy ubbi say bunt taalibe yi sëñ Tuubaa yi wër la ñii amee jàngoro ñii ame yitte nga toog waaye juróom ba sëñ Fallu daana ko def génn ci xay gi toog maa ngi nii waay ajo yi na ñëw waay ngir yàkkamti ñu wax ko aajo ba mu faj ko loolu yërmande la moo tax yàlla na ko yàlla gën a dëgëral si Abdou Karim yàlla ko fi yàlla gën a yàggal may ko mu yàggale sëñ daam dañ naan coowu dem rési euh, Hizbut Tarqiyyah ubbil nu xasida gi nuy bëgg a waxtaanee euh, muy bismillahi ik fi nii su ko defee ñu euh, teewlu ci ay bayit door a ñëwaat ci plateau bi tàmbali dalal sëñ Malick Fall ak sëriñ Abdoulaye Diop Bichir ñu dem de waat mu xëy di gis ko te lii jagleeg borom Touba te lii bu dee jib ba déggoog déggi xol yi sa xoogam ngeen biral ne ka tànneefoon borom Touba ci kaw sëriñ si ñu ci loxoom laa na ko ne leen ko sëriñ daa waxe rek isa isa ayqasatka xurubul ada fanab bi ila amin summa nam Cheikh ñoom ay soldat lañ rek duñ tànn diggéenam waa daayira rawdu rayahin ñoom itam dañu ay jàmbaar xam ngeen ni ñu demee ci yoon bi ñu demee ci sëriñ bi waaye jaay nañ lépp jënd ko taalibe di liggéeyee sëriñ Tuubaa ci wàllu xam-xam te xam ngeen ne si safir ab du Diouf ci euh, euh, xasida gu am solo googu euh, ñu ngi gërëm sëñ Paate Fall bu baax a baax moom ndeysaan moom xasida gi tam léegul sax waaye yónnee na sëñ Malick Fall addiya jox naa ko numéro am léegi ñu ngi koy sant bu baax sañ Paate ci yëg-yëg bi ak yitte ji sëñ Ablaye xasida gi amul tarjumaan dafa ñëw rek bismillahi rahmaani rahim daal di dugg ci xasida gi waaye mu am ay code nag ci biir xasida yi ci biir xasida gi dañ ci gis ay bayit yoo xam ni sëriñ bi suñ borom da ko ko may waaye sul la waaye xasida tawxiid lay tamit ndax dafay mel ni booy wax ba ci biir sax yow dangay ngay jàjjiwaat sa bopp waaye ci biir loolu jañ sun borom wan ko yim moom boo xoolee euh, day tegale lu mat ay bayit yu bari yoo xam anta rek la koy wax anta rek anta rek ci biir loolu sax dag nu leeral loolu ndax jàpp naa ne am na fooy waxee fooy waxee ki ngay waxal jàkkaarloo ngeen bu ngeen jàkkaarloowul am na méthode boo xam ne doo ko waxeek moom tey nan nga ñu indilee résumé xasida gi bala ñoo dugg ci ab yaa bi waaw koy jërëjëf sëriñ Hamidou mm-hmm. euh, xasida gu yéeme mooy bismil ilaahi ak daara yàllaahu mm-hmm. sëriñ bi sax euh, xam na yéeme gi mm-hmm. moom mi ko bind ndax daana warlul mag mu ko mokkal jox la ñaar fukk ak juróom-ñett ca yooya jamono ci ngurdu warlu la fasu naaru góor mhm. warlu la aljanna mhm. ana wax ni képp ku ko mokkal mhm. danaa la warlul fasu naaru góor jox la neexalu ñaar fukk ak juróom-ñett ci ngurdu warlu la aljanna ku mokkal xasida gi waaw xasida gi bismillah ak finil ak daara yàlla kon sëriñ bi moom mi ko bind xam na yéeme xasida gi muy xasida goo xam tam bi ko sëriñ bi taalif fekk na boobu fay yépp mën nañ ñi ñëw na ndax xasida njaareem la Euh, xasaa yi di sëñ bi taalife ci njaareem ci la bokk mhm. nga xam loolu mooy mujjantalu sëriñ bi ndax njaareem mhm. ci la mujjee teg bët sëriñ bi mhm. ba ni mu wujjee boroomam ñu door koo indi Touba. njaareem fukki at ak juróom la fa sëriñ bi sax muy diggante bi mu fa ñëwee wax ni raamoo masiri ilaa njurbel la daal la sa sin law aayinoo sirrama fi sayri maa kon daa am secret bu ko fa yàlla dencal euh, xasida gi nag bokk ci asraar yi nga xam ni sëñ bi feeñal na ko foofu ci njaar yi mhm. xasida gi tam muy xasida goo xam ni yàlla la ci bàkk mhm. xam nga sunu boroom mhm. jàngkat yépp xam nañ ni juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent la feeñal ci ay turu boppam euh, sëñ Tuubaa indi na tur yépp ci biir xasida gi boo seetee tam xasida gi téeméeri bayit ak benn loo xam ni lépp daf koo jox yàlla boroomam bàkk ko ci turam yu màgg yooyu bu ne mu woo ko ci wane ci tawxiit nag tawxiit joo xam ni dafa wéetal boroomam wane ko ne yaa not lépp yaa yoone lépp yaa sañ lépp yaa moom lépp yaay dogal lépp mu woo ko ci tur wu nekk ñaan ko ci kon xasida gi xasida tawxiit la goo xam ni am na ci biir doa sëñ bi day ñaan boromam mi nga xam ni lottul ci dara tëlewul ci dara wax nga léegi damirul muxaatab bi mu indaale nga xam ni mhm. mooy damir boo xam ki ngay wax da ngaa moom mhm. waaw mhm. loolu euh, damir mooy prono di ko tubaab di wax waaw ndax am na ñuy wax nga xam ni yow ki ngay waxanteel da ngeen a jàkkaarloo nga jàkkaarloo naan ko anta waaw yow yàlla nga xam ni day dikk ca euh, Seyduna Yunus ibnu Matta alayhi salaam bi ko jën wi wannee bi muy sàbbal ci biir laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin mhm. foofa dafa def damirul muxaatab day waxanteeg yàlla boromam directement mhm. waaw ca la gaa yi tegtaloo ni kon mhm. yàllaa nga woon ca biir jën woowa dafa wuyu yunus yàllaa ngi fépp ndax ci biir jën wi la nekk di wax loolu ni ko anta joxoñ ko ci prono boo xam da ngaa jàkkaarloo ki ngay waxal loolu jànkat wax ni nit ki bu demee bay xam dara ci boromam rek dootul jomba ñaan dara lépp la koy ñaan yonent bi alayhi salaatu kenn wérantewu ko ci borom xam-xam yi mhm. ci xar ahadis yëpp mhm. indi na ko mhm. eh, na ngeen di ñaan yàlla seen borom donte sax buum bu ngeen takke seen dàll bu dagg la bu leen ko jomba ñaan yàlla ndax yàlla moom lépp te soxlawul lu dul ko ko ñaan mu may la ko sëñ bi nag wane woowu buntu fii nga xam ne nu la ko ñaane ndax ba yàlla ne yonent bi rek wa iza saalaka ibadi ani fa inni qaribun ujibu daawata daai iza ko defee bu la jaam ñi laajee sama mbir man yàlla ne mhm. leen may aji jegeñ mhm. jaamam may mhm. aji wuyu ci képp ko may ñaan di ma woo kon nañu ma ñaan man naa am ñu amee ci njub nañ ma ñaan buñ ma rëye woo nañ ma woo sëñ Tuubaa na def ci tawasul bu rëy ci boromam nga xool xasida gi ba mu jeex benn yoon la ci indi turu yanant bi ci xasida lépp yàlla la ko jox waaw wane na ni fii moom bu may tuddee yonent bi sax intermédiaire lay doon jëm ci moom rek mhm. waaye lépp la jox yàlla mhm. kon xasida gi dafa yàllawe mhm. ndax lépp dafa indi turu yàlla yi am yépp bu ci ne mu woo ko toroxlu ñaan ko ngir yàlla wuyu ko euh, muy xasida gu yéeme boo gisee nag ñaare xasida du am tarjumaan duñ ko gis saa boo ko gisee ñaare lëfa ko waral xam nga lu mu doon daf ca am luñ ko dig lu garaaw a garaaw mu xam euh, tàyyeeluk taalibe yi xam tamit seen naagu muy bañ mu teg bët ca loola wooyefal benn jaamu yàlla su ko defee dañ koy mujj mhm. asaf loolu daal koy effacé nëbb ko di mhm. yem ci jàng mi rek dem ndax day bañ kenn gis ko rek ko mel ni man sàggan ibaadaat yépp nga commencé daal ni ah defatuma dara comme lii mhm. maa ci teg sama bët boo xoolee xasida gu mel ni nafaan yi nga xam ne sëñ Tuubaa nga ko tënk ci tënkee naabudu naabudu mhm. da ngay dégg man nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fa taaba xaladi mhm. ala lazi wulida xayra waladi wa xayra walidin bi xayri baladi bi mhm. alihi wa sahbihi wal humadi salaat jir asir azimi samadi xas yi dégg foofu la yem pourtant yemul foofu am na beneen bayit boo xam deel la waroon a tàmbalee ndax naabudu la ko tëggee waaye dañoo wax ni bayit booba suñu borom moo ni ko bët bu ci tege borom mënatu la def lu tax ma la ko léegi loolu su génnee nag ku sàggan ku mel ni man danaan léegi man defatuma dara moo tax ñaare bu ñu jëlee xas yi xasida nëbb tarjumaan gi mhm. dañuy bañ nit ñi sàggan daa mel ni daloon na ko ci jës bu sax dal na ko ci jës bu sax mhm. nga xam ne koo jox borom daaru muxti muy lu ñu mhm. nëbb kon yu baree bari yoo xam ne daal yooyu waral tarjumaan duñ ko génne mais am na lu ma jaaxal sëñ Ablaye waaw daf ko daf ko doon jiñ waaw xam nga tey soo jigoon di dem ci président de la république waaw ngay wuti passeport diplomate dalay leer ne am na ko waaw dalay leer ne am na passeport mais soo demee ci commissaire de police bi di wuti passeport diplomate dalay leer ne boo demee lam lay tontu mooy loolu moom sama doole yeggu fa waaye dafa natt yàlla ba xam ko ba xam ni moom moom lépp li muy wut waaw mën na ko léegi nag bu ko taggee jañ ko anta rahimu alladi arju bi rahmatihi waaw waate xam nga lu garaaw boo delloo ci alquran sëñ Tuubaa li déggam alquran la nit amul mhm. benn mbindeef amul loolu dégg alxuraanu sëñ Tuubaa moom rek la yàlla jagleel mhm. ndax mu alxuraan yàlla moo ko sax jàngal mhm. boo demee ci sootul xasri mhm. aaya yi ñuy tëje mhm. yàlla dani mhm. huwa allaahu lazi laa ilaha illa huwa aalimul xaybi wa shahaada huwa huwa rahmaanu rahim gis nga rahmaan rahim demal ci xasida gi mu ne ko anta rahimu alladi dégg nga tur yooyu la jël arju bi rahmatihi ngoog an laa ulaaxiya durran min ka yàlla rahmaanu rahima ngoog mhm. kon ci bayit yooyu la leen duggee mhm. nga dem mu ni huwa la mhm. lazi laa ilaha illa huwa almaliku mu tekke ban bayit mu ne ko malik malik yemi malik boobu la jël ci waxal bi ma akun alquddus la ca teg la ma mu ne ko xaddasta sirriya yaa quddus gis asalaamu ne ko anta salaamu alladi salaamu la ca ci alxuraan laa lay wax ni mu ko lëngalee. waaw yaa mu yaa mu'minu ik fii. dégg nga anta salaamul ladi al mu'minul muhaymin mhm. mu ñëw ci muhaymin wabil muhaymin lishad noonu la ko toppee ba xasida gi jeex mhm. maanaam ni ko suñu borom waxee turu yàlla bi yàlla teg moom la sëñ Tuubaa di tegaat ci bayit bi mu làngale du ëppante ba xasida gi jeex waaw loolu xam ne secret la tey boo xoolee xoolal bayit yi xoolal sëñ Xaamidun bayit yi mhm. waaw dafa wax ni euh, maa ngi fan Mm-hmm. yaa xuddoosu ji mm-hmm. yaa ngi xuddoosu xaddasta sirre yaa xuddoosu murtadiyan mm-hmm. an nii wa an karaditu dëhra yàllaaw anta salaamu mu jël fale asalaamu ja ni anta salaamu lazi sallamta kulliya min uyubi nafsi bi tayyin min ka yàllaahu mhm. lu mu ca teg mhm. al mu'minu mhm. mu jël fii ni ko yaa mu'minu ikfi janaabi dura makadarin wa hëbliyal am na fi daareen yàllaahu lu mu teg fële al muhaymin sëñ Tuubaa ni ko wabil muhaymini lishhad bistiraika ma xad bi'tu sirran ilal jannaati yàllaahu lu mu teg al aziz sëñ Tuubaa ni ko anta al azizu lazi abri bi izzatihi izzan yu xallidu lii takriima yàllaahu mhm. lu ca yàlla lu ca fële teg yàlla ko aljabbaaru sëñ Tuubaa ne ko aj bartali innaka aljabbaaru mu mhm. duggaat mhm. dégg nga doon a liqan kullal ida billazi teg fële almutakabbiru mu ni ko kafayta nii kullazi kibrin bi laa ko yaa mutakabbiru dégg nga dugal na ko ruttal ku la yàlla lu yàlla teg fii <laughs> subhaanallaahi amaa yusrikuun mu ne huwa allaahul xaaliqul baari'u jël alxaalix ni ko yaa xaaliqal xalq lixluq ma dégg nga ni mu mhm. ba fa yàlla jógee lu mu teg mhm. albaari u sëñ Tuubaa ni ko yaa baari alxalqi waaw mhm. <laughs> noonu la ko toppi ba xasida gi mat ba ca sunu boroom jógee lu mu indi al musawiru sëñ Tuubaa ni ko antal musawiru xalit li nabi bu dafay jël alxuraan di ko lëkkaleeg bay moom rek a dégg alxuraan ndeysaan sëñ Malick bismillah ik fi nii <laughs> ayca ana mi ayca bismillah bismillah daa yàllaaw mu ni bismil ilaahi maa ngi doore ci tudd yàlla sama boroom moom yàlla nag laay waxal ni ko ig fi nii na ma fegal al ak daar nëx yow yàlla safil baqaabi li ah, ma sellalal sama des ci àdduna bi ci darajay kon yanantu bi alayhi salaatu wa salaam fii ci yow yàlla lii ñeel ma yàllaahu yow yàlla yaa man laa lamru yaa man laa sarika lahu li tax ma la koy ñaan yaa man yow yaay ki nga xam ni lahoo ñeel na ko al amru mbir yëpp yaa man yow mi nga xam ni laa sarika lahu amoo sociétaire kenn du la jàppale kenn nuru la wasi wa maalik wadlix fiika yàllaaw wasix nag ma yaatalal wa malik nag ma moomalel wa atlix nag ma boyal fiika ci sa nguur gi yàllaahu yow yàlla wajaatuka alyawma yaa rahmaanu murtajiyan jubale naa la sama lépp bis ni ki tey man sëriñ Tuubaa yaa rahmaanu yow yàlla mi yor xéewalu jaam ñépp murtajiyan tamay aji yaakaar ci yow fawzi bi ma sirtu fi dunya ka yàllaaw ni mbàkke looy yaakaar mu ni faw si sama texe bi ma sirtu ci nim ma soobe fii dunya ka ci sa àdduna bi yàllaahu yow yàlla anta rahimu la si arjo bi rahmati yow yàlla yaay aji xéewale ji xéewale ëllëg say jaam yow mi nga xam ni yaakaar naa sa yërmande allahu laaqiya duran min maa ngi yaakaar yàlla bu ma dajeeg benn lor bu jóge ci yow yow yàlla sama borom malik yamini wa xalbi suxla ya maliki yow yàlla koo moomale mbir mu moom ko kon na nga moomale sama ndijoor bii nanga moomale yow yàlla miy aji moom ji lépp tey aji buur bi ci lépp sama xol lépp lu ma lay laaj bilaay saa bindi joodin milka yàllaaw te bu ma moomale dara àndaaleeg di ma regle nang ma moomale ci lu dul regle te nga defal ma sag tab gu bàyyi koo ci yow yàlla xadarta siriya li tax ma jaaxal ñëpp xamuñu sama secret yaa ko sellal yow yàlla koo sellalal secret kenn du ci xam dara yaa sellal sama secret yow mi aji sell ji ma àndaaleeg di la gërëm ani kara diitu dara yàlla ma ànd ak di la gërëm nga ànd ak di ma gërëm yow yàlla gërëm naa la giiru dund yow yàlla anta salaamu si salamta yàlla mi aji jàmmal yow yàlla mi nga xam ne ku am jàll jàmm yaa ko may maa ngi lay ñaan sa nga jàmmal ma yow yàlla yaa nafsi bi tayin milka yàlla te nga musal ma ci sama ayib bi bopp defal ma ko nag ci tay mooy ci taxañal ma ko jox ma ko yow yàlla wabilmuhayminu li sat bi tirayi kama almuhayminu daa bokki turu yàlla yi mooy ki nga xam ne dafa présenté wu fépp la not dara ump ko dara du ko échappé maa ngi lay ñaan ci tur woowu yow yàlla nga seereel ma eh, yow yàlla jaxasoogu ma jaxasoog lépp loola neex xat bixtu sirran ilal jannati yàlla nga seereel ma ni jaay naa jaay naa sama lépp jënd ko yow yàlla sa mbóot sa secret ba keroog may tàbbi aljana anta al-aziizul abqi bi zati yow yàlla mi nga xam yaay aji tedd maa ngi sàkku ci yow ci sa teddange gi isan yu xallidu li takrima yàllaaw teddange goo xam ni dafa may béelal daf may saxalal lépp luy xeetu teraanga yow yàlla ajbartali nakal jabaar duna li xam yow yàlla mi nga xam loo jàng mu jàng maa ngi lay ñaan nga jangal ma yow yàlla mi nga xam yaay aji jangal lépp di aji jagal lépp maa ngi lay ñaan ci lu dul daje sax mboolem samay noon nag laa bëgg nga jàngal ma leen ba duñ ma mënal dara yow yàlla mi nga xam ni di yaa ma tànnal lépp loo xam ni moo ma ñeel kabaytani kulla si kibrin bila kulafin fegal nga ma képp koo xam daa am ak rëy ci lu dul benn condition kon maa ngi lay ñaanaat nga fegal ma yaa mutakabbirul tal kulla yàllaawu yow yàlla mii aji màgg ci lépp nag nga xam yaa ma tàggatal lépp yow yàlla yaa xaaliqal xalqi li xuluq ma abadan yow yàlla mii aji sàkk ji mbindeef yépp maa ngi lay ñaan nag kon yow yàlla na nga ma sàkkal lépp lu ma neex rek nanga ma ko jox bilbisri wa safi wa ridwani yàlla te may jox na ànd ak sa mbégte na ànd ak ak sell na ànd ak sa ngërëm yaa baari alxalqi xulli nafa duna azam yow yàlla mi aji fent ji àdduna tey aji sos ji mbindéef yépp maa ngi lay ñaan nga wom wommatal ma sag njariñ te ñoo du ànd ak benn lor waxudul yàlla jëlal jannaati yàlla maa ngi lay ñaan na nga ma wommatal mboolem yool ak pay ak salaire joo xam day jóge fii ànd ak man ba biir aljanna antal musawiru xalili nabi bu saran yow yàlla mi nga xam ne yaay niral ku la neex sa jaam yaa koy melal nu la neex maa ngi ñaan ci dara darajay yanantu bi nga daal di saxal ak mbégte ñeel ko wasawiran li yadunal makri yàlla maa ngi lay ñaan tamit nga daal di may ñoŋalal sama lépp ci lu ànd benn pexe yow yàlla xabarta lii kula sanbin xamataytu bi jaam bu ne day indi bàkkaar su fekkee indi naa bàkkaar yow yàlla nag ma jéggal mboolem bàkkaar bu ma indaale jëlaa la woo li sab di sukri ya yaa xafaaru yàlla yow yàlla seereel cant gu ma la cant yow yàlla miy jéggale bàkkaar ku la neex xaartay rabbi abdaay bila sababin yow yàlla yaa ma notal samay noon yow yàlla sama borom ci lu ànd ak benn sabab min yamituka yaa xaharu yàlla kon war na ci man nag ma lay gërëm maa ngi lay sant yow yàlla mi aji not sa jaam yëpp waatali min ka suulam faaxa maslabati may nga ma yow yàlla jóge ci yow li ma doon laaj loo xam ni féete na kaw sax la ma doon laaj falaka sugriya ya wahaabu yàlla kon ñeel na la sama cant man xaadimu rasul yow yàlla mii aji mayaakoon bi dafa am fanweer ak ñett yu sëñ Tuubaa araamaloon ci boppam te daganoon na ci moom nag waaye yépp moo ni maa ko bàyyi ngir jox ko sama boroom ci xeeti lekk ak xeeti naan xeeti nelaw xeeti wokkatu xeeti gestu yépp la bàyyi ba muy fanweer ak ñett mu ni nag yow yàlla wommatal nga ma nag njëgu loola ma bàyyi woon muy lajj laj jiim ci trois 33 yu ma bàyyi woon yow yàlla ni nga xam yaa yor sama dund waxu tali risqa yaa rasaaxu yàlla yow yàlla wommatal nga ma sa wërsëg wi nga xam du jeex yow mi aji wërsëgal ji fatatali ku la baabin kunta ubbil nga ma bépp bunt boo xam ni ni nga ko daan ubbile sa gaa yu baax yi ubbil nga ma ko na nga daan ubbile say bunt say wàllu yu yàlla yooyu ubbil nga ma ko yow yàlla mi aji ubbi ji alamtanil xaybata léeg-léeg naan jàmm xamul dara ci xaybu bu la yàlla xamalee nga xam nee na yow yàlla yaa ma xamal sa xaybu ba ma xam li nëbbu jaam yi xam naa ko man sëñ Tuubaa mujj naa di ko yeewu ci say mbir antal alimu la si alamta yàlla li tax nag ma wax ko mooy antal alimu yow yàlla yaay aji xam ci nga xam ni umpale woo dara mi nga xam ni nag xamal nga ma yow yàlla xabalta yaa xaafidul ahwa wan yow yàlla mi nga xam ne yaa ngëb lépp ci sa loxo di aji ngëb ji ngëbal nga ma lépp lu warul daal koy wiññi ba mu dem feneen fudul man li xayri naawi yakalak daar yàlla bi nga ngëbee yi dul noonu yëpp da nga koo mu dem ci feneen fudul man niki nëx-nëx yi basatta yaa baasitun amaala lii biri daan nee na yow yàlla ñoddi nga yow yàlla mi nga xam yaay ñoddi mébét yi ñoddil nga ma samay mébét àndaale gërëm ma faskur mu baasatati daaray ni kon yow yàlla na nga ma santal mboolem li nga ma ñoddil àdduna ak alaaxira xafalta yaa xaafidu la daali wa ma daw nee na suufeel nga yow yàlla ñépp ñi nga xam ne samay noonu lañu ba mu jënd ñu suufe ñoom ñëwee yoon ñépp li xëy naawi bi xafdin min ka yàlla ñu jëm ci feneen fudul sama wàll yow yàlla mi nga xam ni yaa ma defal ak ak ak ak suufeel joo xam ni suufeel na samay noon jóge ci yow rafiu daarayni martabati yow yàlla mi aji yëkkati yëkkatil nga ma àdduna ak alaaxira sama martaba képp koo bëgg a suufeel da ngay mujj doo saf xorom bi nga yëkkatee sama daraja nag dootul ànd ak ma suufe ci dara loolu nag yaa ma ko defal ci sa ngëneel yow mi dul jeexal dara yow yàlla antal muisu la si la samtu isatu yow yàlla yaay aji teral ji nga xam ni yow taqoonaa ak sa teddange xilam mooy san way bam fii ka yàlla ci laa nekk di sa xarit boo xam ni ku ñu teral la ku ñu ku ñu sopp la fii ka ci yow yàlla antal musilu la si sallat li sati yow yàlla yaay aji daane la toroxal ku la neex dina toroxal ci sa teddange alinsu wal jinnu wa saytaanu yàllaaw bu la neexee nit jinne ak seytaane ñépp toroxe ci sa tedd nge anta samiu la si naa jeytoo samanan yow yàlla aji dégg ji nga xam ni lépp ngay dégg yow mi nga xam ni déeyante naak yow ci jiiru dund wa bil masaaraati lii xat jutta yàlla bi mu ko defee nag ci nga ma wommatal mboolem yu nekk yoo xam daf may bégloo yow yàlla antal basiiru la si li xaada jumlatama yow yàlla yaay aji gis ñi nga xam ni dara nëbbuwul ci yow yow mi nga xam wommatal nga ma mbooleem la nga xam ni lixtarta dunya wa uxra minka yàlla wommatal nga ma mboolem la nga ma tànnal ci àdduna ak ci àllaaxira bàyyi koo ci yow yàlla nasiibu nag xakamta yaa xakamul baax yi bi kaw ni yaza fawzi bi maa xaaba min busraaka yàlla xakamta yaa a xakamta nga yow yàlla mi aji baax yi yow yàlla mi aji xereñ ci lépp tey aji des bu fi ñépp jógee ci nekk gu ma nekk xerañe nga yow yàlla mi aji xerañ ji ci lépp tey aji des bu fi jaam ñépp faatoo ba jóge fi yow yàlla moomu xerañe nga ma ba ma nekk boroomuk xakamta yaakimul baaxi bi kaw ni za za fawzin bi ma xaaba min bushraka yàllahu xakamta yaakimul baaxi bi kaw ni za yow yàlla mi nga xam ni koo xerañe mu xerañ yàlla dafa nekk aji xerañ ba pare di xerañe jaamam nu mu ko soobee moom yàlla akamta yaa alxaakimul yàlla su fekkoon dafa xereñ ba nopp te xaralewul kon bu jën génnee ci biir géej kenn bi jaraat ñu jël jën di ko xorom fawsi bi ma xaaba min busraaka yàlla yàlla sàkk géej géej xarale la ko sàkke waaye xereñ a tax mu fexe ba jën génn ci biir géej géej saf sàpp ak xorom te bala ngaa lekkaat sa jën xoromaat jën wi fi jóge lool day wane xereñu sunu borom xarale daa am xereñ am mu ni ko nag xakkam ta xereñe nga yaa xakkamul baax yi yow yàlla mi aji xereñe ci lépp tey aji des bu fi ñëpp jógee ci laa nekke man sëñ Tuubaa di boroomu texe ca la nga xam ni moom nga ma tànnal ci sa mbégte yaw yàlla sama borom faati bi maa xaaba min busraaka yàlla kon nag atalta yaa adlu aada bi xayri liqan wala diraarin wali xat kunta yàllaaw nërmeelal nga ma samay noon yëpp ba ñu ba mat sëkk jarul sax may rencontré ñoom yow yàlla yaa ma leen nërmeelal anta latiifu la si xat xuttali abadan ci lu àndut ak benn lor yow yàlla danga ma nekkal waaye yaay aji ñeewantal ji nga xam ni wommatal nga ma ba faw lutfan ajiban yasidul fikra yàllaaw ñeewantal ju yéeme yéeme joo xam day dolli sama xalaat ci yow yàlla antal xabiir la si aayantu xubratu yow yàlla yaa aji deñ ji kumpa ji nga xam ni fexe nga ba ma jàkkaarlook sa li nga deñee kumpa ci lépp waxu tali nga ilmal xay bi yàlla wommatal nga ma tam jóge ci yow ilmul xay bi ilmul xay bi mooy xam-xamu yi fàddu antal alimu la si saxsata jumla tamam yow yàlla yaay aji am ji sago yaay aji lawet ji nga xam ni dàqal nga ma lépp loo xam ni lépp loo xam ni gërëmoo ko yow yàlla dàqalam nga ma ko mu dem ci keneen ku dul man jiiru dund yaay aji màgg ji nga xam ni feeñ na sag màgg ji nga màgg yow yàlla lii ko tafadlan asi man min ka yàlla wommatal nga ma sa ngëneel yow yàlla ngëneel gu màgg a màgg bàyyi koo ci yow antal xafuuru la siili xuta maxfiratan yow yàlla yaay aji jéggale say jaam num la soobe yow yàlla nag wommatal nga ma sa njéggal maa duyoo bi raditu an ka faral nga ma samay ayib samay sikk ci lool nag ci laa la gërëmee yow yàlla dasakooru la si la day karidan nee na yow yàlla yaay aj yéen cant gi nga xam ni nag sama lépp ci yow ngërëm la sakarta jami yàlla sant nga mboolem samay jëf ci sa nguur gi antalaliyu la si alaytani abadan yow yàlla yaay aji kawe ci lépp yaa ma yëkkatil sama lépp ba faw bi xayri makrin wali alalta yàlla sëñ abdoulaat nee na bari pexe nekk ci dëkk da koo gëna a wóor kon nag li ma defal samay pexe taxul yaw yàlla yaa ko man yaa ma defal loolu si sans pexe antal kabiru la si banat kabaratu Oh, yow oh. yàlla yaay aji màgg ji nga xam ni feeñ na sa màgg gi ci jaam ñépp di xotamin ka kabiral ajri yàlla wommatal nga ma jóge ci yow pay goo xam ne yool goo xam ne aji màgg la yow yàlla yow yàlla yaay aji wattu aji peeg ji nga xamante ni nii mal naa sama lépp jox la ko ba faw dina jëm ci feneen fi dul sama wàll ay noon ak i lor yow yàlla antal muqiitu la fii xalatta lii raqadan yow yàlla mi nga xam ne yaay dundal ku la neex yow yàlla mi taxawal ku la neex di dëgëral ku la neex yow yaa ma defaral mu sax sama xéemem teef bilaa isaabin ilal jannati yàlla ci lu àndut ak benn rek la nag ba keroog may tàbbi biir aljanna mm-hmm. akala si bu la si xaddit tafaytu bi yow yàlla yaay aji nag wattu aji peek ci lépp yow yàlla yaa ma feg fege naa wala boog doyloo naa ci sa jëmm ji walif may wuti leneen mm-hmm. an li daawal sa wal kaddi yàlla walif may wuti ci ku ma fegal samay noon wala ay lor wala ay coona yem naa ci yow yàlla nga fegal ma lépp jalilu yàlla yaay aji màgg ji nga xam ni mànge na ci yow sa màgg ji ilaa siwaana li daarayni màngal na mu jëm ci feneen fudul sunu wàllu noon ya ci àdduna ak ci àllaaxira yow yàlla antal karimu lati xat xutali karama yow yàlla yaay aji tedd ji nga xam ne wommatal nga ma sag tedd nge duniya wa yàlla nga defal ma ko ci àdduna bii nu nekk defal ma ko ëllëg ci àllaaxira àndaaleeg mbégte yow yàlla anta raxibu lati baanat siyaanatu yow yàlla yaay mooy ji nga xam ni feeñ na fàng sa sange gi ma sangel yàlla kuliyati an siwa ridwani yàlla goo sangel sama lépp ba du dem ci lu dul sa ngërëm yow yàlla antal ma jibu la siin xaadat bi xayri anam yow yàlla yaay aji wuyu sa jaam bi nga xamante ne wammatal nga ma ci lu àndut benn coona ijaabatun minka lii lixtarta yàlla ak wuyu goo xam ni daa jóge ci yow ànd ak li ma tànnal وإنك الواسع الباقي ولي أبدا yow yàlla miy aji yaatu ji lépp nga xam sa dara tuutiwul yow yàlla miy aji des bu fi lépp jógee yow yàlla yaa ma defal ba faw wadaada dawsi ma defal ak yaatu gooma yaatalal sama mbir àndal ak boyal ma daal may mbaa yàlla anta la kiimu la si adlaxtani li si waa yow yàlla yaay aji xerañ ji nga xamante ni boyal nga sama lépp masaani wa ma awtasu yàlla ba du ma jëm ci lu dul loo xam ne lu ma neex rek lay doon waaye lu ma naqari du ma dëgmal fegal nga ma tam lépp lu warul antal wadudu la sin xaadat mawaadatu yow yàlla yaay aji sopp ji aji cofeel ji nga xamante ne nii wommatu na sag cofeel lii sar ma daan biri daa wal xurbi yàlla ñeel ma man xaadimu rasul ba faw àndaaleeg sa ngërëm ak sag jige antal majidu la si baanan majaadatu yaay aji tedd yow yàlla di aji màgg ji nga xam ne sag màgg ak sag tedd nga feeñ na xutali min ka majidan faaxa yàlla wombatal nga ma jóge ci yow sunu boroom loo xam ne ak tedd nga lay doon joo xam dafa féete kaw way nakal bàyyi sul mubqi bila dararin yow yàlla mi nga xamante ni nag yaay yónni say jaam yaay dekkal say jaam yaay desal sa jaam yaa ko fi dindi yow yàlla ci lu ànd ak lor kafaytani jumlatal akdaar fegal nga ma mbooleem lii ay nëx-nëx yow yàlla anta saydu latin qaadat saadatu yow yàlla mi aji seere ci lépp nga xam ni wammatu na sak seere lii bi tiraayika minni saaka yàlla. àndaaleeg sama jaxasoo ak yow yàlla sama borom. yaa yow yàlla mi aju dëggu ji yow yàlla seereel nga ma ak dëggu koo xam danga maa fegaaleel mbooleem loo xam ni. lam tardali mudlaxan bil fadli yàlla. fegal nga ma mboolem loo gërëmul yow yàlla lum ci doon ci sa ngëneel yow yàlla. antal wakiilu lati qad iktafaytu bi. yow yàlla yaay aji wéeru ji nga xam ni ku wakiilu ci yow du daal. daanut ñàkk kon yow yàlla wéeru naa ci yow yàlla walif may wuti leneen fii dafi wal jalbi wal jalbi nag ci bu may ñoddi mbir wala ma koy jiñ ci yow yàlla lay wéeru yow mi nga xam yaa moom mbindeef yépp antal xawiyu la si xawaytani biridan yow yàlla yaay aji dëgër ji nga xam ni dëgëral nga ma lépp ak ngërëm fii sirri wal jaariya sal amni yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ àndaaleeg may boroomuk nag dégg kóolute yow yàlla anta almatinu la si xaj kuntali bi mu nan yow yàlla yaay aji dëgër ji nga xamante ne nekkal nga ma ci sama mébét wala tuwaajulil makru yàlla te dootuma dëgmal mukk lépp loo xam lu ñu sib la ngir yow yàlla antal waliyu la si laa taxi badalam yow yàlla yaay aji méngoo sama mbir téyel ma sama lépp moo tax duma sàkku man sëñ Tuubaa ku la remplacer ci loolu nag ci nga man nekkale ci dara darajey nii ma wakkiloo ci yow di ma wóoluloo ci lépp mbir antal amidu la si wajatali ni ama yow yàlla yaay aji sant ji aji gërëm ji nga xam ni dëgmal naa sama lépp jox la ko ci xéewal bilaa xururin wa xayril makri yàlla nga daa di jubale say xéewal jox ma ko ci lu àndut ak woru ci lu àndut ak benn pexe yaa musi al yàlla mi aji fas di aji takk mboole mbindee fi dara échappé ci ñoom ak mboole mbir yi kafaytani durama asayta yàlla mu ne yow yàlla nag fegal nga ma loru mboolem li nga takk ci sa nguur gi dara du la échappé yow yàlla yaa yàlla mi nga xam ne yaa sos mbindee fi yëpp yaa fexe ñu door yow yàlla moom nga xam ni du la dëgmal mukk ma la uhibbu raditu anka yàlla lu dul rek sama cofeel jëm si ci yow àndaaleeg ma lay gërëm muy doomada aw dil xutali karaman yow yàlla mi nga xam ne yaay matal ab dëyal yow yàlla moomu gërëm naa la yow yàlla wom matal nga ma sa tedd nge kulli saarin wa yawmin fii ka ci bépp weer ak ci bépp bis ci yow yàlla muy bi xëy na yaatin mu ni falaka sukuri bi safil umri yalaaw waaw baamu waat ko muy bi xayri ayaatin juttali abadan baamu waat ko damaa réer bay balaa gisatul <laughs> muy bi xayri ayaatin juttali abadan waaw demal tuuti ma xool muy bi xayri ayaatin juttali abadan falaka sukuri bi safil umri yalaaw waaw bisimila mu miitu xat suxta mawti lil xidda walawum Mm-hmm. makari suxta fii daa rey ni yàllaaw waaw mumiitu yow yàlla mi rey ku neex nga xam yaay dundal yaay rey yaay rey wommatal nga ma samag dee joxal ma ko ñi nga xam ñooy noonu yàlla yi makari suxta fii daa rey ni yàllaaw ñeel na leen tam mboolem yi ñu sib yow yàlla wommatal nga ma mbooleem nag yi ma bëgg ci àdduna ak alaxira sukri maridayamam yow yàlla mi aji dun te doo faatu yow yàlla moomu sama cantu xol ak sama cantuk ngërëm àndaaleeg sama eh, cantu jëf boo boole naa lépp jox la ko yow yàlla ak ngërëm ya xus doona suxtin min ka yàllaaw kon xus min ni ya na jàpp jóge ci man doona suxtin ci lu ànd ak benn mer min ka jóge ci yow yàlla xayamu xat xuttalima yow yàlla mi nga xam yaay aji dëgëral sab jaam yaay aji taxawal sab jaam yow yàlla wommatal nga ma mbooleem lu ma doon sàkku bi xayri kasbin ilal jannati yàlla ki lu àndu tëg may fàggul sama bopp dara ba keroog may tàbbi aljanna aw sartali waajidul asmaana doonaanan yow yàlla mi nga xam ni daal yaay may wommatal yaa tax ma jot mboolem samay njëg ci lu dul coono yow yàlla moomu àggale nga ma ci sa jëmm lakkal wujjoo ñeel na la nag ak am goo xam ni sa existence goo xam dafa feeñ fàng ci man sëñ Tuuba yaa maa judut alniya daaray ni muhtaliyan yow yàlla mi nga xam yaay aji màgg maa ngi lay te nga aji yëkkati sama lépp àdduna ak alaxira bi xayri kibrin wa hujbin rabbi yàlla ci lu àndut nag benn pexe wala benn naw sama jëf wala aaw yaa waaye du jàlliya daaray ni munfaridan nee na yow yàlla mi nga xamante ni yaay aji kenn nga xam dangaa wéet ci sa nguur gi mal mu naa bi asiisin min ka yàlla nang ma defal sama mébét ci àndaaleeg sag tedde nga gu bàyyi ko ci yow yàlla lakkal tijaay bi maa lixtiira yaa sama di ñeel na la sama gi wéeru ci yow laa wéeru yow yàlla yaa may tànnal sama lépp yow mi ñépp jublu ci aajo bisran li jumlati man ahbabta yàllaaw yaa may tànnal sama mbégte ci mboolem li nga xam ni moom nga sopp yow yàlla yaa xaadirul maxsula mundabian yow yàlla yaay ki nga xam ne yaa ma alagal mboolem koo xamante ni nii ku yées la yaa ko alagal ba mu ba mu jiñu ila siwaana laka taxmidu yàlla ba mu jëm ci feneen fudul ñun kon ñeel na la sunu ngërëm yow yàlla rasaltani la jetta yananta muxtadiran yow yàlla wërsëgal nga ma ci aj màkka gu leer nañi taxañal ma lépp ci lu gaaw a gaaw a gaaw yow yàlla mi aji dogal lu la neex mal jiwaari wa sawrin fiika yàlla defal nga ma tam ma mel ni ku dëkk ak yanant bi alayhi salaatu wasalaam defal nga ma mel ni ku koy ziyaar ci waxtu wu nekk antal muqaddim ma jiital ci àdduna ak ëllëg ca yombal xeer ci kaw mboolem sa tànneef fi nga tànn ponkal yépp naa leen jiitu ca yomal xeer yow yàlla mi nga xam yaay aji yeexal tam ko la neex maa ngi lay ñaan nag ma dindil samay noon ñu dem ba faw siwaana ñu jëm ci feneen fudul ñun àndaaleeg sa geccete sa gàcc gàcc gu ñuy am ñoom àdduna ak alaaxira samay noon way naka laa walaj lii xunaa wa xadan yow yàlla mi aji nag jiitu di aji kenn di aji wéet ci lépp maa ngi lay ñaan nga defal ma fii ak ëllëg fi saabiqiina bi fadlil minka yàlla ma bokk ca way jiitu ña eh, ci sa ngëneel gu jógee ci yow yàlla yaa xiru jàll ya daara ni saaru tabin yow yàlla mi nga xam ni nag yaay aji eh, jiitu waaye di aji tamit mujj ci lépp yow yàlla moomu laay wax ni la nag ma defal àdduna ak alaaxira daraja wasadi umri ilal jannaati yàlla yow yàlla miy jiital tey mujjee maa ngi lay ñaan nga defal ma daraja te nga sellal sama dund ba keroog biir aljanna yal ma yow yàlla miy aji feeñ ci lépp maa ngi lay ñaan na nga ma wërsëgal ci mboolem yi may mébét àndaaleeg ma di wéy gërëm anni wa asir biyal qur'aan yàllaaw ginnaaw boo xamee ni gërëm nga ma te nanga ma feeñalal sa alquran ji leeral ma ko yow yàlla yaa baatinul suxni yal asraar yow yàlla mi aji nëbbu lépp ni nga nekkee aju feeñ maa ngi lay ñaan nga wërsëgal ma say secret ma nekk boroomu kóolute wajal fuadi ya sarfa sikri yàllaaw ma nekk boroomu xéewal kon te nga defal ma sama xol bi na nekk nag dencukaayu sa tur wi ñuy tuddi alquran yow yàlla nag maa ngi lay ñaan ci sa ngëneel yow mi méngoo sama lépp nanga ma àggale ci sa ngëneel waman walayta yàlla nga defal ma nag ngën gi mindeef mu nekk sama jokk waay jëm si ci yow yàlla sama borom way nakal mu taali suqi daakaman yow yàlla mi nga xam yaay aji kawel ci lu la neex di aji kawe ci lépp maa ngi lay ñaan nga wommatal ma samay noonu ilaa si waa xas di durri dahra yàlla ñu jëm ci feneen dul jublu ma ànd ak seen lor giiru dund yow yàlla wasi wamalig waatix duna mafsadatin yow yàlla mi nga xam ni koo yaatalal mbiram mu yaatu maa ngi lay ñaan nga yaa yaatalal ma sama mbir yow yàlla ci lu ànd ak benn lor wali tajib daawati yaa barru yàlla maa ngi lay ñaan tam nga wuyu ma ci sama ñaan jii ma lay ñaan yow mi aji baax yow yàlla ala yatub tamawta samba jumlatu nee na nag euh, maa ngi ñaan yow yàlla nga nangu sama tuub ci mbooleem samay bàkkaar nga effacer ma ko taarta kulli yaa tawaabu yàlla sellal nga sama lépp yow yàlla mi wuyu jàmm bala woo ci tuub anta lazi min idaal islaami muntaqimun yow yàlla mi nga xam ni noonu lislaam bi ëllëg yaay fayu ci ñoom walintaxamta bi ma lixtarta yàlla maa ngi lay ñaan nga fayul ma ca nang ko taamoo yow yàlla talafawu la si anni afawta bila yàlla mii jéllalee ko jéggal ci lu la neex maa ngi ñaan nga jéggal ma ibqaahi ay bin aday talkul yàlla mbooleem loo xam ne dese woon naa ko ci ay sikk ak ayib te nga jubal sama lépp yow yàlla yow yàlla yaay aji ñeewantal ji yërëme ci sa jaam yëpp te jàkkaarloo nag sa yërmande wala tuajulil ahda yàlla maa ngi lay ñaan yàlla bu ma dëgmal samay noon yow yàlla yaa maalikal mulki lii wa saxta duuna jawan yow yàlla mi nga xam ne yaay buuru buur ñi yaa ma yaatalan ci lu ànd benn jàqare nag fil mulki wal malakooti dara yàlla mulkook malakoot ñaari pays lañ yoo xam ni bële la sunu borom noote bële malaaka yi not ko ñaari yëpp tàggatal nga oyof lool ci man fu ma ci bëgg a dem dem sans problème giiru dund yow yàlla yasal jalaali wasal ikraami habli yama yow yàlla mi boroom màgg tey boroom tedd nge maa ngi lay ñaan nga may ma lixtarta dunya wa uxraa min ka yàlla la nga xam ni moom nga ma tànnal àdduna ak àllaaxira jóge ci yow yàlla xudduliya yaa muqsitil madloobu ay sungara yow yàlla mi nga xam ni nag yaay séddale di joxe mboolem li nga xam ni mooy li ñuy sàkku xillan wa iban ma ridwaani yàlla fuñ ko fi gisee rek maa ngi lay ñaan kon nga sédd ma ci def ma nag may sab xarit di sab soppe àndaaleeg di am say ngërëm yaa jaaniuñ maliyal axrada murtaliyan yow yàlla mi aji boole maa ngi lay ñaan nga xam lu la neex nga boole ko sama diggante ak ak ak ak ak ak mboolem yi may xeyme mi nga gaaral na nga ma defal may aji gërëm ani bi kaw ni ko leefil jami yàllaaw may aji gërëm ci yow ngay aji gërëm ci man àndaaleeg sag nekk goo nekk di ma ñeel mbooleem ci mbir yi àndal xaniyu lazi laa yantami xaradu yow yaay aji koomal ji nga xam ne yow yàlla déet ñu lay askanal nag ci dégg nga lenn loo xam tële ko ci wàllu xeetu gaaral maa ngi lay ñaan nga jox ma mboolem li ma aajowoo jëm si ci yow yàlla. maa ngi ñaan nga woomalal ma yow yàlla mi aji woom ji ci lu dul sabab. maa ngi ñaan nga nekkal ma ci sa ngëneel ba faw yow yàlla. adaydani innakal mutimunal kuraba yow yàlla mi nga xam ni yaa ma may yow aji maye ji mboole mébétu gaayu tedd ya kabaytani jumlatal daa yàlla fegal nga ma mboolem samay noon yow yàlla manata yàlla miy aji tere lu la neex tere nga lépp lu warul mu jëm si di ma dëgmal. toi juli macha allah. te dootuma dëgmal mukk lu ñaaw yow yàlla yaa ma defal loolu. tere nga yow yàlla mi aji lor lu la neex tere nga ma lépp luy lore ba du jëm ci sama wàll fii ba àdduna tukki kon bu ma dëgmal mukk ay xeeti lor yu mu ci doon yow yàlla li xutta fi kulli say nabazi karamin maa ngi lay ñaan yow yàlla yow mi nga xam yaa ma wommatal ci bépp mbir rek njariñ la nga xam ni mooy njariñ la cay teral yaa naafi'a li yàlla yow yàlla mii aji jariñ nga xam ne yaa jariñ mboolem ñi am ak ngëm yàlla nawarta yaa nooru kulli saafiyan abadan leeral nga yow yàlla mii aji leeral sama lépp aji sellal sama lépp ba faw fegal nga ma fegal nga ma lëndamaayu ya warul yépp ci mbir yi wala tooñje yépp ba ba dëgmalatuma yow yàlla nee na ko yow yàlla wommatal nga ma yow mi aji jubal tey aji gindi wommatal nga ma defal ma ak njub njubug gaa ya nga xam ni nag ñoo gunge woon yanant bi ànd ak moom mii ku ñu tànn moom yanant bi alayhi salaatu wasalaam antal badiyu la si baa yow yàlla yaay aji fent ji yaay aji sos ji nga xamante ni feeñ na fent gi nga fent àdduna maa ngi lay ñaan nga wommatal ma ay xeeti fent yëpp àndaale sa yool yow yàlla li safi umri yaa baaxi bi xayri riddal yow yàlla yàlla na nga ma sellalal sama dund yow mi aji des ma àndaale ak sa xéewal ak sa ngërëm wal noom nii bi kitaabi laa yàlla maa ngi ñaan nga desalal ma comme ni nga desale alxuraanul karim mu fiy des na sama lépp des ci àdduna li jumlata maa li xtarta min minanin mu ne yow yàlla wommatal nga ma mboolem li nga ma tànnal ci xeeti anwaari salamaati yàlla ma mel ni maayu dono yi mboolem ñuy donn ca way faatu ya yàlla defal nga ma ko anta rasidul asi xatxutali rasadan yow yàlla yaay aji jubal ji nga xamante ni yaa ma womatal sa njub fii kulli sahin ma tafsiri yàlla ci bépp mbir àndaaleeg sa mbégte yow yàlla anta yàlla mi nga xam yaay aji muñaakoon ji nga xam ni jubale nga sak pay jubale nga sag pay jubale ak njëg koo xamante ni mooy njëgu mboolem li nga xam dañaloon nga ko ci nga xamante ni nii euh, euh, euh, mooy yi ma jaayante woon ak yow yàlla subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf sëñ Ablaye jërëjëf sëñ Malick jàpp naa na ñiy seetaan ñu ngeeg seen ik fin yi ñu ngi doon topp ñoom it jataay bi maanaam woy wi dafa ànd ak firi bi dangay gis sëñ Malick gëdd woy wi xam naa sëñ Jéel ak sëñ Cheikh seen danañ xam li may wax gëdd ko Baye Cheikh mu daa boole ñaar yëpp daa dégg woy dégg firi bi moo tax moo tax mu kéemaane euh, waaye yàlla na la suñu borom fay soxna maam Marème Bousso moom soxna maam Mati moom Cheikh Amadou Fadal ñu ngi koy ñaanal baax sama yaay jooju soxna maam Mati soxna maam Marème nee na sëñ Ablaye jàmbaar dëgg la xam nga Baye Cheikh boo jàngee ayab la waranzal naa ñu bari xamuñu ne sëñ bi fi muy tibbee uh-huh. ndax fi mu fi muy teg suñu borom saa su nekk delluwaayam sëñ Modou njaay day dem al day dem ci alxuraan bala maa dem ci élément bi ndax njabootu Cheikh Sidi Moukhtar gépp ñu ngi yónnee ay bataaxal ñoom sañ Xaadim Diop ñoom ñëpp ñu ngi yónnee ay bataaxal waaye balaa maa ñëw ci xaside gi damaa bëgg sëñ sëñ Modou nga nga commentairal ma foofu sëñ Ablaye bi mu ubbee xaside gi rek mënoon na ca yam ndax bari na ñuy jàng ik fii nii xamuñu ni mi ngi ci biir xam nga li tax ma ne boo gisee titrage xasida gi xasida sëñ bi li tax nga war cee dugg mooy day am leneen lum dëxañ ci biir day am lu ko yàlla di may loo xam ne da koy wutal lay lay taay maanaam su ab salaatu bu mu def wala bayit sànni rek nit ñi mën nañ ko bañ a fonk waaye doo ko wutal xasida fanweeri bayit mbaa téeméeri bayit mbaa nangam lekk làq may googu ci biir xasida googu léegi boo tax taxoo xasida googu xam nga am na ku ñu wax ne mës na ñëw kenn ci njabootu sëñ bi ni ko damaa bëgg nga wax ma xasida gi ëpp doole ma koy jàng mu ne ko damaa bëgg nga wax gi gën a néew doole ma koy ko kooko na tekk daal ne ko kon digtal ma ci benn mu ne ko goo ci taxool baax na loolu mooy bindul lu néew doole léegi dafa am ñetti bayit yum tegale antal mudillu ladi zallat li izzatihi al insu wal jinnu wa saytaanu yallaahu anta samihu alladi naajaytuhu zamanan naajaytuhu zamanan wa bil masarraati lii xat jutta yallaahu antal basiiru lasi lii xaada jumlatama li tarta dunya wa oxra ka yàllaaw gis nga ñetti yii sëñ Moodu baytu actualité la naa jeytuhu zamanan actualité la li tarta dunya wa actualité la ndax moment ba mu koy wax yoon wi dox na ci diggante bi ma bëgg nga saraal ma yooyu bàyyi seex ci ne <laughs> waaye di nga ma bàyyi tey <laughs> eh, sëñ Moodu foofu laa bëgg nga ñëw fa balaa muy ñëw <laughs> Hamidou. Mhm. Eh, yàlla eh, yi mhm, mhm. toog di déglu rek. day dàq. ci jotaay bi. ndax eh, mbokk yi ñu mu doon yëkkatee wax dëgg yàlla. te muy la xam nga jàng yaa ngi xasida li ci am solo dëgg-dëgg la ci jiitu mooy. mooy baat yi wér leer. te loolu moo feeñ ci njàng mi. yàlla suñu borom doole doole dëgëral amiin amiin amiin eh, amiin kaddu gu neex a ñëw wallaay wallaay wallaay eh, kaddu lu mu neex neex bu bari wéerul mhm. yow mi xam li muy wax mhm. buñ koy wax day mel dañ lay dañ lay jàpp daal suñu laay mhm. may wax day juxutaan waaw arab maanaam bu ñu bu ñuy wax ay ay ay bayti xasida ki koy jàng lu baat ba neex neex bu yàq baat bi yow mi xam li muy wax yow da ngay mel ne ku ñuy yem ay puso te dootoo sawar sax te dootoo sawar ci lay wax loolu lu mat a xel la ci suñu mbokk jàngkat yi mooy wax kan ni ko sëñ bi bindee baat bi wér mhm. te loolu daa feeñ ci njàng bi loolu moo tax eh, mhm. diglu gi da doon dàq loolu mhm, sëñ Ibrahima gisee nga ko noonu bayit wu daaneel rek mu jox la ci bind boo xam ne da ngay ci gën a yéemal sëriñ bi yàlla na suñu borom doole jàppale. amiin amiin amiin sëñ Moussa Saliou Sow mi ngi yónnee message léegi nee na ma nuyu sëñ sëñ Ablaye. wallaay nee na ma neex ndax daa xam li muy wax. ndeysaan wallaay day seer baax baax. wallaay wallaay ziar ñoom wallaay. waa majmu amatul xaadirin ñëpp ñëpp. wallaay wallaay waaw mm. mm. ma nuyu sëñ Jibril seen sama xarit boobu sëñ seen Sène waaw. waaw sëñ Jibril sëñ Jibril nit ku reconnaissant la. Mm-hmm, mm-hmm. xam nga nit sëñ Modou. Mm-hmm. su ngeen séqee teraanga. mu defal la ko te forcé woo ko. da ngay fexe téye loolu garde ko wallaahi sëñ Moudou Moussa dafa waxoon ne àddina. gënante mhm. wuñ fi lu ëpp ma bëgg la te yëgoo ma. waaw sëñ Jibril Sène ku baax la. ku baax la wallaahi xam naa ku baax la ku reconnaissant la koo xam ne. loo ko defal ko xeeb. ku baax la tubaab yàlla sàmm muy waxtaan kat di borom xam-xam waaw tubaarkàlla. bisimilah am na solo lool. Mhm. waaye sëñ Ibrahima kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax. <coughs> xam nga sëñ eh, sëñ Hamidoune. Mhm. sëñ Ibrahima bi muy wax ci ci xasida gi mi ngi wax ne jëmmi xasida gi dafa bari xasida yoo xam ne bari na ci loo xam ne sëñ bi du ko indi muy tarjumaan ja lu jëkk la wala lu mujj la mhm. ndax loolu ay secret ay mbóot la yoo xam ne am na ci yoo xam ne diggante ak boromam képp la mhm. subhaanahu wa taala mhm. am na ci yoo xam ne maanaam li mu doon wax léegi bañ nun nu tayeel ci jaam yàlla lanu yàlla sant dana tax mu di ko dëxëñ di ko di ko xam nga dañoo xam ne maanaam tarjumaani gis bu am ñuy wax ne bu mm-hmm. feeñoon mm-hmm. benn sëriñ kenn dutu ko topp topp ci gannaaw ni ngàbbu sata la la kon am na tax ñu nëbb ko mm-hmm. waaye boo demee ci eh, eh, xasida gi eh, sëñ sëñ Abdourahman moom Daaru Muxti borom xam-xam la bind ko ku bind la ci loxoom la bind na xasida gi man gii monsieur moo ko bind indi na ci tuuti na ci njëlbeenu tarjumaan ji loo xam ne day dëggal li sëñ Ibrahima wax mooy dëxëñ gi sëñ bi dëxëñ loolu dafa wax ne bismillahi rahmaani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa taqabal minni hadihi alqasidata xabulan yataajabu minhu al awaluna wal axiruna xabulan yataajabu minhu al awaluna wal axiruna bila afatin wala kadri minni wala minni aban amin doo dugg ci bismillahi fii ni al akdaar yàlla mhm. sama borom bi mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba noppi da ko wax nag nga xam ne lépp lu muy tàmbalee ci tàmbali ci boromam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. maa yaa nga nangul ba xasida gii muy bëgg a def waaye nangu goo xam ne ña jiitu woon ak ñi ñëwaat jamono ba ëtt nuy tukki dañ koy yéem mhm. kon kon mooy mooy mooy lëm ci dëxiñ mooy lëm ci dëxiñ mhm. loola leen yéem ña jiitu woon te ñi doon bu ca génnee kenn nag mhm. al awwalun la wax waaye wal aaxiroon ñii ñëwaat jamono it gannaawam ñëpp nañu ci nangu gi ma nangul xasida gi abadan ba faaw nag bu am benn nëf nag buy ñaan borom xam li nga wax rek xam li xam borom ak xam ne tëliwul dara. xam ci mu jàkkaarloo li si laa doon wax nga ci ba tey teg naa ku tel ne yàlla boo koy ñaan li ma lay ñaan bu ñëpp di yëru sama mbir maanaam bu am benn buñ dem ba kenn ko kenn di ko xool gis ne lii lii am lu am lu ci wala naa wala bi ñu ko def waa nangam déedéet nañ ko yër ba faw mën na ko moom la neen mag daan wax rek nañ nañ maa ngi xaar ci kii mhm. ndax fa ngeen lam waxoon ca xasida nuur daari mhm. wa am ci min ci ñi di yow ñu rixat sama tay dina daama démb bu subaa gàcceel suñ borom di jox yam ko joxoon démb su ko joxee yooy tay mhm. mu fàtt yooyu démb su subaa mu fàtt yooy tay noonu la boromam doon doxe ak moom nga xam nga sëñ Bour xam nga lu garaaw mm. yenn saa mm-hmm. xam lu muy wax yàlla wallaahi waaw mm-hmm. yàlla dina may nit audience mm-hmm. te kooku bu jàkkaarloog yàlla du xam lu mu koy wax fii ne na koo xam ne gis président la soxla waaye bu jàkkaarloo woon ak moom lam ko bëgg wax da koy fàtte fàtte la ko wax la ko waaye del xool sëñ Tuubaa méthode bi muy tàmbalee ni mu koy jeexee la xas bi bu muy ñaani suñu borom day mel ni lu mu préparé woon la te audience boppam mm-hmm. ma damay dëggal li ngay wax nii maa nit yàlla may nit audience de nit woo na borom ba tey mm-hmm. mu wuyu ko mu ko naa am bayre mbaa naa am day daraja mbaa am naa ami taalibe mm-hmm. waaye sa ko te loolu dala da koy peese voilà ah, <laughs> ah, muy def xam xam bu mu xam borom subhanahu wa taala damay faral di wax ne <laughs> sëñ maanaam suñu borom subhanahu <laughs> ku ñu jekk ndax buntum bu ne da ko fëgg mooy li sëñ bay xasida gi juróom-ñeenti ci tur yàlla ak juróom-ñeenti asmaa la walillaahi asmaa husna fad'uhu bihaa la san bona wax mm-hmm. yàlla am na ay tur rafet mm-hmm. turam yëpp rafet mm-hmm. doo jël mukk tur wax ne an naafi muy aj jariñ gën rafet ak daar kiy lore waaw dëgg suñ borom noonu la mel dëgg an naafi kiy jariñe gën te rafet mukk ak daaru kiy lore kon walillaahi asmaa husna fad'uhu bihaa tur wu ci nekk nag dafa am buntu la ci suñu borom boo xam ne la nga cay sàkku jaara ko ci la gën a gaawee mhm. booy sàkku njëriñ an an naafi ngay jëfandikoo mhm. booy booy booy jañ lor ab daar yàlla miy ak durur wa nafa min arrahmani laysa min al bidaani wa sudaani mhm. loolu ba ca ca ca gànnaar Maxtaar ak njëriñ ci yàlla képp lay jóge jógewut ci ku ñuul jógewut ci ku weex kon booy booy jañ lor ci yàlla nga koy jañ jaara ko ci tur wi tudd ab Euh, béy yi nga doon wax léegi. Mm-hmm. antal musillo. Mm-hmm. antal musillo baal ma mu béy baal ma mu béy bi. antal musillo di dalal li ay zati al insu wal jinnu mm-hmm. wa cheytaanu yàlla. na ko léegi. al musil mooy koo xam ne lépp daa torox fi moom. moom mooy ki mag. moïse la. moo tax lu ñëw fi moom da nga maanaam da ngay toog da daa tiim lépp. nga xam ne ñëpp dañoo toroxlu fi moom muy al ins lépp koo xam ne maanaam nit nga hmm. sa bopp jëm kaw seytaan ki jëm suuf yaa génnu ci lool dëgg mu nga ngay jinne noonu hmm. seytaane la ci aju lépp seytaane fexeem rëy na lool suñu boroom ku lott la ku lompañ la hmm. ca xasatu bata sëñ Ibrahima ba seytaane defee ay pexeem jañ jay waa waa waa Xuraysh bañ bañ song yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne maa leen di dimbali ba malaayka yi ñëwee naka sa ala aqibahil alxuraan wax ba muy ba muy daw man man waq yaa ngay daal daal ca gannaaw muy samp ak xew naan inni axaafullah rabbal alamin damaa ragal yàlla mi borom bindee fi mm-hmm. kon daa ragal yàlla mm-hmm. kon fu mu dégg tur yàlla samp na aw xelam mm-hmm. aussi ñu cheytaani bilaa xilaafi zikru ilaahil maanil maafir suñ tubaab wala nu jàngaloon kaso bi nga mën a tëjee cheytaane ci lu sikk sàkka mooy tudd yàlla saa su tudd yàlla seytaan samp samp na xelam dëgg la kon wa ca tege anta samihu alladi naajaytuhu samanan zamanan mooy li nga doon wax léegi da ko yàgg ñaan yàgg koo wax ne ko nangam nangam laa bëgg defal ma nangam fegal ma nangam na Touba mel nangam tàmbale ci man nga bu la neexee man nga tàmbale ci xasi dëgg mat loolu fauséyi la mu ko ci doon ñaan ca Touba mhm. booba demagul ci dëkk bi mhm. na dëkk bi mel ni te booba mbaarom ngeer ko tiim mhm. lu ne mu ne mu ne na fi am bokk na ci rek li li mooy mooy symbole bi fa taxaw mu jumaa ma ngi mi ngi ñaan boromam naan ko na nga jéggal ñiy tabax sama tabax gi ak ñi leen di dimbali mhm. waxfar li man banaw binaa ahal mhm. wax waxfar li man amarahum bihi jamia wali jamia man aanahum ala binaa ihladi bi fadlika atala mhm. na nga jéggal ñii tabax tabax gi ak ñi leen di ak ñi leen di jox ay ndigal nga xam ne dana yëkkati ko ba ne séeg ni ñëpp seen ko te mhm. booba mbaarum ngeer ko tiim mhm. mais gis nga ni mu def waaw fin maa di la indi banaw banaw nga xam da ko dafa teg bët ba xam ne am na pare ko jox la ah, mhm. xanaa kon passé l'emploi waaw magoog xam nga xam nga mag bi moom moom luñ luñ def ba noppi la mm. kon loolu da nga ciy dugal ne yow laa doon ñaan bu yàgg zamanan diirub jamono bu yàgg may lay ñaan mu ne lii wabil masaraat wabil masaraat li jutta yàlla jutta yàlla kon gannaaw gannaaw ku tabe nga mm-hmm. ba xam nga al juudu tabe mm-hmm. moo tax mu jël eh, eh, baatu juudu mm-hmm. tëgg ca fenlu jutta kon fenlu maa bi nga doon waxat ñu wan léegi bil ma saraati loolu ko bégloo mooy la mu doon ñaan lépp suñu borom teg na ko ci loxo bil ma saraati dëgg la mu teg ca antal bathiru alladi li xaada jumlatam badian mais badian samawaati wal ardi ki fent asamaani juróom-ñaari suufu juróom-ñaar yi ak li ci seen biir li nga xam Basiirul lazi antal Basiir kay mm-hmm. al Basiir kon. Mm-hmm. ki nga xam ne moom dara ump ko lépp mi ngi mi ngi. wa huwa samiul Basiir la yor. Mm-hmm. laysa kamislihi shay'un. wa huwa samiul Basiir borom nee dara mirut ne man. te kuy dégg laa kuy gis laa. gisub yàlla nag déggub yàlla boo bokkut sunub gis mbaa sunub dégg. dégg nga. lixtar la nga la booy lang ma wom la ma doon sàkku ci yow. nga wommatal ma ko. tànnal ma ko. ndax suñu borom dafa sëriñ bi dafa waxoon ne alxayru. fii maxtaarahul muxtaaru mhm. laa fi lazi nufusukum taxtaaru mhm. yiw wa dëgg-dëgg mooy mhm. li muxtaar kiñ tànn mu yonent bi sallallahu la mu tànn mooy mooy mooy la tànn mooy la gën mu wax suñ borom moom sëriñ bi ne ko mboolem la ma doon tànn lépp nga te yaa ma ko tànnal yow yàlla wamatal nga ma ko tey ndax gis aji gis nga te gis nga lépp moo tax la ma doon léegi ba muy wax ne wamatal nga ma ko booba jumaay Tuubaa taxawagul déedéet jumaay Tuubaa taxawut Tuubaa melagul nii mu mel hmm. dëkk maanaam maanaam këram yi mu am ci biir àdduna bi yi melagul masaalik gii taxawagul te lépp ca la tàbbi woon camaya sëriñ bi ma maanaam dafa mel ne daa daa sëpp jamonoom daa sëpp jamonoom mhm. mhm. maanaam ko wan jamonoom jëpp ba ba ba gis ko xam nga dafa wax ne xawli wa fi'li wa i'tiqaadi surifat lillahi bil qur'ani wa insarafat koo xam ne say wax sa pas-pas say jëf lépp da ko wëlbati jëme ko yàlla jaare ko ci alxuraan moo tax lu lu lu mu am jomb ko lu mu am Sëriñ Tuubaa lu mu am jomb ko ndax léppam da ko jox borom subhaanahu wa taala jaar ko ci alxuraan jaar ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko doxale diggante ak borom subhaanahu wa taala moo ne lillahi bil qur'ani wa hiyan sarafat mm. waxaani baaxir tiyaaban kartidaat waxaadani ilal jinaani bi widaat mm-hmm. ci biir xasida googu ci ci boo bi muy jeexal tarjumaan ji. Mhm. xam naa la doon wax bu yëgul naan la. Mhm. tarjumaan yi xasida yi nañ koy yër léeg-léeg. Mhm. sëñ bi dana ci dëxëñ loo xam ne maanaam boo ko yërul doo xam li li xasida gi wund. xam nga dafa waxoon nafaante ni bi dëkkri xaaliqal wara. nafaani bi dëkkri. xaaliqul wara. waram ma sànq yeewu kulli nawira. yàlla suñu borom subhanahu wa nga xam ne moo bind bi def yëpp hmm. moo ma jariñ ci ci hmm. bi dëkkri hmm. waaye waram ma sànq yee moo defar sama jëf waaw waram ma sànq yee waaye wa kulli nawira sama lépp leeral na ko ca ca biir lay wax ne wajal xarakaat yi wa sakanaat yi wa anfaas wa enraad wa agrad anfaa taqwa wa axsana taqwa wa awsala ilay fi qasidi hadi athmaana kulli ma baaxu anni ndeysaan na def moom yàlla dafa wax ne wajaala dafa wax ne daa def kon fi almaade ngoog yàlla moo def samay yëngutu man ak sama dal samay nokki samay xemmem téef lépp luy yàllaa ko def muy am fa taqwa gën jaar ragal njëriñay ragale yàlla sama lépp noonu la waaye wa ahsana lu ragal yàlla ku lu nit mën a ragal ragal yàlla gën rafet rafetle ko nu ak sëñ Tuubaa ci rafet ak rafetam naan ak ragal yàlla ni mu ko rafetlee waaw xam nga xam nga foofu sax sëñ Modou li ci doy waar mooy li nga wax ñu mu ma moo ta yër mooy nañuy xool li sëriñ bi defar mhm. euh, bi mu jógee ku ne xam ne suñ borom jaam ñëpp déggaluñ ko mhm. waaye beddiwul jaam ñëpp déedéet gis nga sax da doon avertise yonent bi alayhi salaatu salaam mhm. ci ñoom ah. yaa ngi dem ci Firawna de ku beew la de waaye nag faxulaa lahu xawlan layyinan loolu xam Seydina Moussa Moussa muy dem ci Firawna daf ko ne bu bew na de innahu taxaa mhm. waaye nag fa xulaa mhm. xaw xawl lay te lim am yàllaa ko jox ba tax mu bew waaye kii yàllaa ko yónni joxaat koy droit am mhm. ay xaqam yàlla lu jaam bi dëng dëng dëng dëng dëng dëng lu ci naa yenee mi droit nag sëñ Tuubaa ne eh, nasihun bila xithin alimun allamun saqiyun bila mannin waaye kalaaman yu layin sëñ Tuubaa nag jëp taxawaay boobu la am ci ouverture ba tax ñëpp ñëw léegi soo bëggee xebet sëriñ bi wala nga bëgg wax safaan ba côté boobu ña tax te ñëw wut si ko fa ngay xoole wallaahi wallaahi surtout loolu góor foofa rek ngay xoole daal di dut baaraam te fekk am na koo xam ne bi yooyu sëñ bi waa mu ngoog te foofa <laughs> sëñ am din doguma la waaye gis nga li nga wax nii eh, yaa ngi doon tudd sànq benn vidéo bi bi circulé gaa yi ñu tàmbale ne ci def seen commentaire yooyu ñu tàmb ñu baaxoo def rek mm-hmm. yooyu moom nanuy wax nu nuy jëf rek waaye li wér mooy maanaam sëriñ bi teel naa wax waa jamono boppam nee na suñ borom maanaam bi ma liggéeyal sama borom ba mu gërëm ma ba seytaane yërundu liggéey bi xam ni mënu koo yàq uh-huh. dane naa naa ko gàkkal uh-huh. ni mu ana mu koy gàkkale mooy damay xool koo xam ne melut na mu war a mel ma ne ko demal tuddoo kee uh-huh. mboolem yi nga xam ne moom moom la ñuy dale ci kaw yoon wi di ci porox ndoll di ci wax. Mm-hmm. ñi melut ni ñu war a mel ba noppi di tuddoo sëriñ bi ci lañ koy jaare mm-hmm. loolu nag jotewuñu dara sëriñ bi. sëñ moom lépp ma sell. xam nga sëñ Baye Jaxate mm-hmm. radiyallahu anhu ku ne xam na ni sëñ Touba gërëm la. wallaahi sëñ Touba ko yar. sëñ Touba ko seexal. bi mu wàccee liggéey juróom-ñaari morsoy sëñ Touba juróom-ñaari mbubbam lañ ko robaale. 1948. ca Xurum Mbàkke. amoon na ci sëñ bi lu jafeñ mhm. ndax daana sëñ bi daana tëju mu ñëw di wax ba sëñ bi ubbi bunt sëñ bi daana ko wax kaay soññ ma mhm. ki gën a mhm. tege ñëpp ci yoon naa kaay soññ ma sëñ Abdul Ahad moo waxoon ni euh, waxi sëñ Bay Jaxate yar la ginnaaw yëpp lay dal daal ni kilifa di nga toll foo xam ne dootoo dégg ku lay wax dëgg mhm. ndax ñu la ragal a lay topp mhm. ak ñu la yaakaar ak ñu la wekk ak ñu lay jay mhm. ñi kenn du la ci wax dëgg mu ni su boobaa yàlla na yàlla dimbali ba nga nangoo déglu sa boppu dëgg daal di déglu waxi sëñ Mbay Jaxate nangoo déglu dëgg la sëriñ son yi bu Mbàkke wax ni bala maa gëm ni kenn ëpp mbir sëñ Mbay Jaxate bis pénc bala ñuy taxaw ba ma gis ko ma door koo nangu man sëñ son sëñ bi jox ko digal ci bind mu wax ni moo jaa lu dee fi defati hmm. moo jaa lu dee fi waxati hmm. moo jaa ku dee fi royati bu kilifay moy aka fo hmm. ku war boole aw nitam di waar a kay ful seeni ngëm defu ko far boole aw nitam di moy aka soow aka fo àdduna yàqu na kat te kilifa yee ko yàq kat du seenu nit a ko yàq kat kilifa yee fiy dox di fo àdduna yàqu na yaxeet ku yeb wut bërëb bu wéet mhm. nekk fa di jaamoo ko wéet tey sori nag kuy mooye ko àdduna yàqu na kat te kilifa yee ko yàq kat du mhm. seen nit a ko yàq kilifa yee fii dox di fo mhm. kilifa su dee dox di fo dootul mën a tee tere ku fo te su dul tere nag ku fo ñéppam di mooy faw a fo ku yebu ub sa buntu kër te daa daw nelaw yi far nelaw a gën génn di lor aw nit a koy mooyee fo ay am na nag ndegam nelaw mu bon mi lee fii taxaraw xamal ni kenn dootu raw nelaw gënul lëf ndare fo waa juy nelaw gënul kudul waa juy mooyee fowee ka mooy ndigal nelaw du tax ñu xëy la fal néewal ko tey moyu ko fo kilifa day moyu ko fo ba noppi di tere ko fo su dul mënta tee kenn fo na téye boppam ba du fo sawara bég na mbég mu rëy ngir moyu yu rëy yi dee fi mooy foo toll gis góor ak jigéen ñuy longoo dox di benn sunna su yenn bi ak a téen rek ak a xël-xëlee ka fo sëriñ bi wax na dind na def na lu gis te digle na lii moo ko war kat wàcc na mësula moy mësula fo ku nekk dégg nay waxam ku ne seere nay jëfam képp ku topp ndigalam te tala mooy yàllaa ko fo jëfam a gën jëfi ku ne waxam a gën waxi ku ne waaye ma gën yi ku ne waayam ji dëgg la du fo képp ku ne fa waaye ma muy moy aka fo xomaaga képp ku nee fa waaye ma weddil ndegam gis nga ma fo hmm. wurus bu yàggee am xomaag hmm. xaalis bu yàggee am xomaag lépp lu yàgg am xomaag hmm. xomaag a fii ruus ak a fo bàmba wurus wu sell la waaye dërëm bu sotti la bu amee ab rax yoru la ab raxa bon day tax fo xànjar li dar dar ci wurus asal bu ko tëgg di gis xam ni dafay nuru wurus nde du wurus wurus du fo wurus lu sellul bokku ca xaalis lu weexul bokk ca bàmba ku baaxul bokk ca nañu bàyyi fa jullitu ko waaw léegi sañ bay jaxatey bind lii yenantu bi alayhi salaatu wasalaam moo gën mbindeef yëpp alayhi salaatu wasalaam ku ci ku ci ku ci sa xol bañ dara mhm. doo tàbbi ëllëg aljan gënu ko yenantu bi sëñ Tuubaa ko bi mhm. mhm. ku xalaat ci yenantu bi kenn gam-gamle kook moom mënatul jëf lu yàllay nangu ndax fi ko yàlla teg man dox naa ci madinatul man naa war a gis ñuy tux ci madina ñoo ñooñu ñu war may yenant bi ñu ngi tux laa la wax ci Medinatul Munawwar mhm. ah ba ca Kaaba ga mhm. dafa def loo xamante ni jaaduwul mhm. amul ku yàlla dogal nga baax gën ñëpp te doo am ñu loo xam ni naqari ñu la sa kër koo mën a doon dina am ñu la naqari sa kër léegi nag soo bëggee lu baax doo dooni ah voilà les mourides Mhm. ci kenn murit bu tegewul ci yoon mhm. wala ku ni murit la tudde boppam te bokk ci mhm. nga ni murit yaa ngi nii mais Serigne Touba dafa bind demal xool ci bindam dara lu mooy sunna loo ko ci gis sëriñ Touba daa am njaboot xoolal jenn doom jooju mës a xam fa ko jamono lu dul léppam dafa dëppook islam sëñ Touba dafa seexali mag xoola ñi mu seexal koo ci mës a dégg yitteem mooy yàlla ak yalant bi sëñ Touba dafa yorub dëkk am ku ko yilif sëñ taxaa li mu diglee mooy li ñëpp xam muy lislaam ci seel Mhm. léegi nag yoon wuy développé ak fu mu mën a doon. Mhm. faaw am fi ñu dugg pour sabotage. Mhm. te sëñ Tuubaa moo waxoon ni. Euh, day gis koo xam ne jëmul fenn moom seytaan. mu ne ko demal tuddoo kee. nga xam ni kii demul fenn. waaw ah, parce li ñu wax ne barki démb ci internet. Mhm. moom doo xam lu muy nuru jigéen ak ki góor yu jaxasoo. ku góor di war ci kaw ci jigéen. jigéen di war ci kaw ku góor loolu du diine sax moom l'islam du diine loolu. loolu xamuñu comédie la xamuñu lu mu doon ndeysaan. léegi su ko defee ñi nga xam ne yoon wi ñor na leen. wallaay wallaay dañuy góorgóorlu dem gëstu ci yoon wi. dëgg la dëgg la tey xool ca ña modèle ya ndax mhm. yoonu murit nag dama lay wax benn mbir. dëgg la dëgg la maam woon roy ak romb la. Mhm. roy ak romb. roy ak romb. dëgg la lu baax nga xam ne lii lu baax lii la sëñ Tuubaa jàngale nga Mhm. loo xam ni baaxul nga romb mhm. waaye nag bul askanale yoon yëpp ci loo xam ne ay caaxaan la dëgg la fu ne am na ay caaxaan tubaarkàlla jërëjëf euh, sëñ Ablaye xam naa ak lu mën a xew mhm. bu fekkee ne bu fekkee ne xanaa xamoon ne ah, waaw dëgg la xam nga xam nga xam nga bu fekkee ne bu fekkee ne tey euh, ki nga xam ne sax dafay góorgóorlu même bu fekkee eggul dana yegg parce que ku ci nekk am nga bi ngay ñëw melokaan wa mel am na ñoo xam yàlla leen bind ñu man alxuraan door a ñëw ci sëñ bi Mm-hmm. am ñoo xam yàlla bindewu leen loolu mm-hmm. ci codd lañ juddoo ñëw mm-hmm. waaye dem nañ ba ñeewuñ ñi mën alxuraan liñ naan dañuy dem di di sëñ bi di maslaa ñoom di tepp tepp ak ñoom la taxoon mu wax yonent bi baslun wa ba sun li man laanu wa man jaaru kon ñaari loxo yooyu mooy nekk ci sëriñ bi euh, ñu gën a góorlu ci daayira yi ak mbooloo yi ndem li naan ki bëgg nga delloo mu xeeb ko ki la yee te de ki yee na dee hmm. loo feebar xeeb na ko hmm. loolu nag su fekkee ne am na hmm. yow fexeel ba sax ci ay garab yu woo tey faju mbay jaxate nee la <laughs> sañ Tuubaa mbay jaxate nee la te donta yaa ngi ci mbànding mbànding àll bu yaatu tey jëfey ndigalam moom sëñ Tuubaa yëgal ni yéen a ngi riisoo yàlla seede te donte yaa ngi ci poojam tey moyit ndigalam seenu diggante fi sut ndar lii ko bon moyu ndeysaan waaw kon sëñ Tuubaa ni ñu koy jigee mooy nekk ci li mu xam nga xam nga eh, maa ngi lay dugalal benn vidéo maa ngi lay dugalal benn vidéo bala ma laa laaj bayit bii ma lay bëgg a laaj eh, ndax bëggan na maa mais lii ma lay bëgg a laaj Oustaz Aliou Sall ko wax benn vidéo eh, dafa mel ni Oustaz Aliou Mbaye ñu ngi koy ziyaare baax ak sëñ Mbàkke Sylla sama xarit maa ngi koy nuyu daf ko laaj ci xasida ak Mawaahibu Naafi mu ne ko sëriñ bi ba mu ne bismillaahi ni yan mooluhaa yi ca la xasida ga mat waaw maanaam la ci topp yëpp mënoon na ko caa bañ a teg léegi nag dama bëgg nga kii boo ko defee nga door ma cee commentéral bu am solo la euh, ñu door a ñëw nag ci benn bayit bu ma lay laaj boo xam ne nii moom lay tëje ak fini bi kon sëñ daam am na vidéo vidéo bu fekkee ne jàppandi na euh, ñu xool ko dellusiwaat ci euh, plateau bi lu kanzil kitaab wala xadiisu wala adab la jemo fiddati wala jemo saabu kon ñoom liy féete dara ëpp ko solo Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa mashru am bi gën a rëy bi gën a rëy mooy université bi te ci seen loxo la ko te def nañ ci. bàyyiwu ci dara. bàyyiwu ci dara. li ñu si teg nag moo di rek. li ñu ciy teg nag moo di rek. ñu fas yéene sax ci ak taalu bi. ñu fas yéene sax ci ak taalu bi. tañ nangul na ko. te booba ñooy waaw euh, xam naa ne vidéo bi jàppandeegul bu fekkee ne jàppandi na rek nga nga nga dugaloon nu ko euh, sëñ daam ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, sëñ Mbaye Mbaye Mbaye Sapar lañ koy wax mbay Sapar Sapar nee na mi ngi topp jotaay bi ñu ngi koy ziare bu baax a baax di ziare soxna maam Marème bu sa ni ma ko waxee léegi rek ak sëriñ Dame Ngom ca Ziguinchor maa ngi koy nuyu suñu soppe la. sëñ Bekay Seen ca kër sëñ Touba ga ca Pikine euh, Medina Gunaas euh, ca Gunaas euh, sëñ Jili Lam xam nga mi ngi waajal bis bu am solo samedi bii nu jëm incha allah war naa faa teew waa Pikine gépp incha allah ca Medina Gunaas ca kër sëñ Touba ga sëñ Bekay Seen maa ngi koy ziyaare baax a baax ak waa kër sëñ Touba gépp sëñ Cheikh Diom Mbaye ñu ngi koy gërëm bu baax ci bis bu am solo bi nga xam doon na ko def keroog gaawu ñu teew fa man ak sëñ Saliou Sam sëñ Jili Lam sëñ Bàcci Fay ñoom ñëpp sëñ Mama Thioune ñu ngi leen di nuyu baax sëñ Cheikh Diop di félicité soxna Mami ci sargal gi mu doon defal sëñ Cheikh Diop Mbaye euh, ñu ngi ko ciy sant bu baax euh, maître Baydi Mbaye euh, sunu avocat mun Muntaxa ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar ak sunu yaay musli kenn soxna Adama Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar soxna Adama sama woon ca délégation ba ak nday nday nday Birane ak waa kër ga yëpp Yacine ñëpp ñu ngi leen di nuyu Serigne Mbacke di nuyu bu baax a baax soxna Yacine soxna a Gora sa safaru Serigne Saliou soxna Yacine maa ngi lay ziar baax sëñ Mouhamed jatara euh, moom sëñ Moustapha Diatara ñu ngi koy ziare sëñ Abdou Faye oto ñu ngi koy nuyu ak sëñ Moussa Thiaw police ak soxna na bu Thiam euh, sëñ Moussa Thiaw nag sëñ Ablaye euh, damaa bëgg nga ñaanal ko lool ndax wax dëgg yàlla taxawaay bi am na solo lool ci sunu jëmm ñu di ko ñaanal yàlla taxawu ko may ko mu yeggale li mu bëgg defal sëñ Touba soxna Mati Diouf mi nga xam ne mooy faral di defar ceeg yi di ko fendi moom ñu ngi koy ziare fële ca Tëngéej sëñ Ablaye bi sañ tubaa di bëgg a jeex xas dëgg yi dafa wax lii xutta jumlata maa tamit min minanin wiraasatan waarisal amwaati yàllaahu liixut hmm. te jumlata waaw maa lixtarte min minan ni waaw moom nga yàlla ku mu tànnal rek sa lépp baax hmm. Hmm. waaw yàlla bu la tànnalee parce que yàlla moom lépp waaw yow yàlla nag mbooleem li nga xamante ni nii moom nga ma tànnal ci xeeti xéewal moom nga ma wommatal jox la waaw yow yaa ma tànnal maanaam li nga ma wommatal ci xéewal yëpp mooy li nga ma tànnal waaw léeg-léeg sax dañ ñaan ci ñaan yàlla ko yàlla jox lam ko tànnal. Mm-hmm. waaw loolu ñaan la. Mm-hmm. kon nag loolu lay wax sunu borom ni ko nag bi nga ma ko defee ci laa nekk nag ndono. Mm-hmm. man maay donow maanaam ñiy dund ak ñafaatu ñëpp. yow yàlla yaa ma may noonu lay waaw may seen dono waaw. may seen wiraasa bi nga xamante ni maa gën a rëy. su ne sëñ Tuubaa la ci ñuy dund ak ñi faatu. waaw patrimoine la ko yàlla def nga xam ni tey ñëpp ay dunde sëriñ bi. mooy mooy mooy patrimoine bi gën a rëy. sunu wiraasa bi gën a rëy. waaw loolu nag il faut ñu xam ko. ndax yàlla moo ko tànn jox na ko mhm. waaw yàlla ko def muy sunu wiraasu bi gën a rëy mhm. xam nga fi mu ne nii li indi ci eh, réew mépp coow mhm. mooy lànk rek ci lu yàlla dogal waaw lànk rek ci lu yàlla dogal sëñ Tuubaa mii <laughs> ak lii ko yàlla jox ak nii mu mel nga xam ni amul benn amul foo mën a jam sëñ bi déedéet déedéet waaw doo wax ci njàmbaar doo wax ci aw fit doo wax ci bëgg yanant bi doo wax ci ñàkk koo tagg doo wax ci sàgg ni julli doo wax ci sàgg ni sunna doo wax ci bëgg lislaam mm-hmm. doo wax ci fonkul alxuraan amul benn côté mm-hmm. benn aspect booy xool sëñ Tuubaa rek te doo ko nag mm-hmm. kooku nan nga mën a nekk jullit te doo ko bëgg kon da xam ne defaroo ko. Mhm. waaw su wiraase bi gën a rëy mooy sëñ Touba yàlla jox na ko. suñu sàmbay radiyallahu anhu daanaka la lim ba mu yàgg mu ne ko ku ko bañ loo koy bañee. loo koy bañee parce que ni jullit laa man alxuraan laa bëgg. Mhm. ñun la sëñ Touba fi mu jaar ak alxuraan. Mhm. nga xam ne tey saar woo jël tëgg na ci xasida. bàkk ci yàlla tagg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. gindi ci xeetu yonent yi jullit yi. ñaanal ci ñëpp. dëgg la jéggal nga ne yonent bi laa bëgg ñun la da koo gëm a gëm a gëm ba. boo fekkee sëñ Touba bëri nii nit mhm. waaw da ngay gis fi mu teg yanant bi ndeysaan àgg ci naan ko dee nga yow yanant bi sa dëkku tànk ak aka neexoon nga teg ko ci sama lex bi di ko mhm. raay di ci joggi mhm. aka neexoon ma nekk ci sa sa deret aka neexoon ma nekk sax dàll wi ngay sol a neexoon nga teg ma def ba sa jaam-jaamaat xaddi wi xayatu li rijil mujtaba min shawkatin wa ma yudaayil aqraba gis nga yooyu yëpp Eh, ndeysaan xaddi jaaltuhu turaban naali yaa layta lahabani bi fadlihi ay xeeti wax yu garaaw a garaaw la yoo xam ak yaram la nga gis mahabba bi mu am ci moom mhm. ay doomam ak dëkkam ak mhm. léppam jaamu yàlla mu def na ko fi fidaa da ko jote bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam te mhm. xool fi mu teg yàlla nga xam fi mu teg yàlla ak ni mu ko doon jaamoo ak waxtu jot ak njàpp lu tooy xib ak circonstance bu mu ko fekk dëgg la nga xool ni mu taxawoo nit ku ñuul nga xam ne ñun mësuloo am kenn ku taxawal dara dañuy mhm. toppare mu dikk taxawal nit ku ñuul tey ba fépp ci àdduna bi nga mën a siggi mhm. lépp ci turu diine l'islam mhm. waaw kooku noo ko mën a contre da gis kuy mën a làqatu tey jii ci réseaux sociaux yi boo nee daray sëñ Tuubaa bala ngaa àgg ay saaga la ñu tekki suuf <laughs> dëgg la dëgg la taarkaala dëgg la kon <laughs> dëgg la xam nga xam nga sama sama soppee nekk tubaa ñoom sëñ Mamoor Géndé ni ngi leen siyaare say saar sañu sëñ Mouhamed Mbacke Euh, euh, dañuy gis yenn saa ay vidéo commentaire su ko defee bu ñu commencé ma ne leen lii ak liggéey bi noo ànd. Mhm. sëñ Tuubaa boo koy liggéeyal da ngay ko ko compte bu noppi doo a tàmbali. waaw ndax mooy doon sedd sa ëllëg. la mhm. lii moom ay taw feex la. Euh, sëñ Malick bala noo tàmbali dama lay bàyyi. soxna Fatou neen daa bëgg a yeewee ko waaye yow mënu ko yeewee ko borom faree fa. Euh, moom xam nga sëñ Ablaye euh, sëñ euh, ma nga ca fëree fa sëñ Modou Ndiaye mhm. kilifa la fa mhm. tubaarkàlla xam naa ne war naa war naa daanul sëñ Ablaye lu bare baree bari ndax mhm. man xam naa la xam naa la baax a baax baax a baax ñu ngi sant baax na ci teewaayam ci plateau bi tey ndax taalibe Cheikh bu jóg ñëw siyaare si seetaan si émission bi ànd ak sëñ Khadim lu ñu bégga la lool wax dëgg yàlla lu ñu bégga la ndax wane na rek ne li ñuy def nun ñëpp ñoom. xam nga mag ñi amuñu woon problème. Mhm. dafa am ku ku doon wër mbiru xutbaan ya ba mhm. ba ñëw ci sëñ Touba di ko tudd ay nitu diine. Mhm. bi mu ne ko. dama am ñeent ñu sama xel jàpp ma la doon laaj ku nekk loo xam ci moom sëñ Touba ni ko bisimilah. mu ne ko alaaji baali. sëñ Touba ni ko rajulun yaxaafullah. ñu ko jëmm la joo xam dafa ragal yàlla xoolal boobu boobu bu rëy ñu ko rajulun yaxaafullah jëmm la ju ragal yàlla nga ni sëñ Tuubaa Cheikh Sidiya Baba. sëñ Touba ni ko rajulun yuhibbullaha. jëmm ju bëgg yàlla nga. mu ni ko seex na seex Saadu Abi. sëñ Touba ni ko rajulun yuhibbuhullahu. jëmm ju yàlla bëgg nga. mu ne ko yow nag Cheikh Ahmadou Bamba mhm. mu ne ko rajulun lam yaasillaa muddatu umrihi fa jaaluhu laa xaadima rasuli wa kafaaw mhm. mu ne ko jëmm ju mustafa yàlla nga yàlla def ko xaadima rasul ne ko loolu doy na ko mhm. <laughs> la waaw fii la mag ñi nekk dëgg la ma bàyyi la nga yëkkatal ñu ay bayit euh, la tànk sëñ daam deeg si ñi ñu indil euh, vidéo bi euh, ñu sëñ Ablaye commentaire ci sëñ sëñ Ablaye bëggoon naa xam naa xam naa xam naa xam naa xam naa ne tey waxtu wi jege na waaye damaa bëggoon bala moo jeex nga barkeel lu ma ci kenn muy sëñ Aliou Diouf Lambaye xam nga sëñ Aliou Diouf Lambaye histoire ak sëñ mormaane mbay seen seen histoire dafa doy kéemaan ndax dañu tayle seen bakkan ci xupp yu ñu leen doon xupp waaye seen pas-pas ak fa ñu teg sëñ Touba Xaadimu Rasul moo warul na ko sëñ Moussa Ka waxe woon mhm. ñu ne ko ñu ñu ñu folli la tey tekki sa ndombog tànk mhm. moo gën a wér lii nga wax noo lànk mhm. noo lànk nag dafa garaaw te loolu lu ñu war a taxaw jàngat la ca jamono booba ca jamono booba mhm. moo tax ma bëggoon balaa bu sëñ Malick daaneel sëñ Ablaye loo ma ci barkeelu rek mhm. eh, bokk yi danañ ko mën a jëfandikoo tey nag waa Lambaay dama bëgg nu xam ni signalé wu sëñ Tuubaa woolu na ko mu ñëw mu ne ko damaa am ndigalul wargaal la sëñ bi loolu yombul mhm. muy warga lu ko sëriñ bi jox mu mu sotti ci biir mu ëmb ko du naan sëñ bi ne ko a ah, kaas yi ma lay jox mu ne ko damaa bëgg su ma demee topp làmbaay teen bu ne ma cof tàbbi ci biir ñu naan ko ndax ñu defaru sëñ Babacar Ndiaye Cargaan te ñoom ñett la sëñ bi wolondoo lan moo waral loolu yéene nañ tund wa baax ñu ñëw sëriñ sëriñ bi waxuñ seenu doom ak seeni njaboot waaye la ñuy xool mooy tund wa jag ndax booba nam meloon ci ceddo dafa jéggi woon dayoo suñ tubaab defar noonu ngay mel sax moom dëgg la maanaam dooyam ci sa bopp dooyam ci sa bopp maa ngi fàttaliku euh, euh, soxna soxna Daba mhm. moom sëñ Mouhamadou Ndiaye dafa dem ci sëñ Abdu Razaax men doomi sëñ Daaru Xasan la mhm. di waxtaan ak moom ba àgg ci yowmal xiyaam ak yu mel noonu mhm. mun ko ah man da bàyyi mhm. man bu yowmal xiyaam bu ma dugg na àjjana rek naa sant yàlla mun ko a ah, roqee acam murit bu ne waaxu dugg àjjana loola gàcce la ci moom da ngay tax buntu àjjana dugal mbooloo mu bari dugal mbooloo door dugg yow door a dugg <laughs> ndeysaan tubaarkàlla kon sëñ Malick euh, bismillah balaa sëñ Ablaye ñëw ci sëñ Aliou Diouf en attendant sëñ Dame Dieng si bismillah يقول أحمد الأمين مقدم خير الأنام أحمد الحاج الكريم حمدا لربي الآل الرحمن من جاء بالإسلام والإيمان ثم الصلاة على الأدنان من جاد بالإيمان والإنسان من فضله في المرسلين ثبتا وبكتاب العزيز قناتا والي علي التقى وصحبي وكل من قد جاء مؤمنا بي هذا وين اليوم سوء توسلي بسور القران وهو منسلي سميتها منور البنيان مؤلم الجهال والأميان إني توسلت إلى رحمن خالقنا بسور القرآن بدأت بالفاتحة المعصمة وسورة البقرة المكرمة وآل عمران وبالنساء أجارني الله من الأسواء ولا نلاقي ما يسوء أبدا bijaayi man rabbal anaami abada bijaayi xayril xalqi wal asaabi fi naf ila ansaalu kasaabi ramaanu aafi ummatal adillamin waab lana ma nartaji fi kullin wa walidil xadimu ablomuna wali fawqa kulla bunyanin bana waab lana ma nartaji fihi فأنت عالم بما نخفي وبمن أفيز الزانسام الإيمان والإنسان والإسلام واغفر ذنوبنا ولرب من قد قرأ منا أو كتبا ثم صلاة وسلام سرمدا الذي مذنبين مدى وللتقى وزهبا wa kulli man xad muminan bihi image boo xam ne sëñ Sidi Muxtaar def na ko sëñ Dame bu dee bu saas Alioune Sall bi noppi na mën nañ koo teg su ko defee sëñ Ibrahima mën cee commentaire ndax euh, bëgg naa sëñ euh, sëñ euh, sëñ Malick laaj ko tuuti ay laaj ndax xam naa ne émission bi li ci des néew la waaye terewul rek ñu def ko ñu def ko ñu def ko yëfi yëfi américain tubaarkàlla euh, ñu àndandoo ak waari si kon déglu Cheikh Seydil Muxtaar euh, ci kaddu yu am solo yoo xam defoon na ko ci discours euh, Sëñ Ablaay Sëñ Seydil Muxtaar dafa nekk nit ku marquant ci àddina dafa nekk ku réussir itam mission sëñ taxaam mii te yàlla fi yàlla yàgg yàggal ko fi loolu te mu wér mës na koo wax ne ko su ma fi suñu borom naree jëlee su la fi na suñ borom naree jëlee na ma fi jëlee man mës na ko koo wax ci taxawaay bu am solo ak pas waaye euh, noppi gi ak tekki gi ak jëf ju réy ji loolu jàpp naa ne dal gi sañ jili dal gi ne tekk te lijjanti lépp nga xam ni euh, am na loo xam su ko nit su ko nit su ko nit sañee it ñemewu ko <laughs> waaw am na loo xam su ko nit sañoon tam ñemewu ko yal na yàlla suñu borom dolli ay leeram euh, naan na doon teewlu discours bu am solo boobu dellusiwaat ci plateau bi bugg leen taxaw déglu lii may wax borom. bàyyiwu ci dara. bàyyiwu ci dara. li ñu li teg nag moo di rek. li ñu ciy teg nag moo di rek. ñu fas yéene sax ci ak taalu bi. ñu fas yéene sax ci ak taalu bi. tañ nangul na ko. tañ nangul na ko. doxañal ko fu mu àggut. te na ko fu mu àggut. fu yàq àggut. fu yàq àggut. te itam. te itam. fas yéene. fas yéene. sax ci jaamu yàlla. sax ci jaamu yàlla. te liggéey. te liggéey. te xam ne. te xam ne. ku jaamuwul yàlla ku nekk. ku jaamuwul yàlla ku ne. jaam bu saa borom gërëm. jaam bu saa borom gërëm. moo lay rammu ëllëg. moo lay rammu ëllëg. ku liggéeyut ku ne. ku liggéeyut ku ne. da nga jëppee. da jëppee. def na la jëppi. def na la jëppi. aleykum kon asalaamaaleykum. loolu rek moo doon wax ji. loolu rek moo doon wax ji. ñu ngi leen di dénk nag. mu ngi leen di dénk nag. dénk sama bopp. di dénk bopp mu ngi leen dénk di dénk boppam. ngeen fas yéene sax ci ndigalul suñu borom li nu fas yéene sax ci ndigalul suñu borom li te bàyyi yi te bàyyi tereem yi bàyyi tereem yi tey bàyyi tereem yi ngi ñaan itam mi ngi ñaan itam sëriñ bi nee mi ngi ñaan itam li nga xam ne li nga xam ne moo xew ci jamono bi moo xew ci jamono bi ci tariixa yi ci tariixa yi loolu laa bëgg mu jóg fi ba set wecc loolu la bëgg mu jóg fi ba set wecc ndax lépp ndax lépp lenn la lenn la alaaji alaaji maam alaaji Malick. ndax moo maam alaaji Malick. Serigne Touba. ak Serigne Touba. jenn jëmm lañu. jenn jëmm lañu. mu leen a xàjjale. mu ne su leen a xajale ku leen xàjjale. ku leen xàjjale. da dem ca gott ba rek. dangay dem ca gott ba rek. xàjjiku dem ca gott ba rek. xàjjiku dem ca gott ba rek. te gott ba te gott ba. ay gara fa. ay gara nga fa. foofa rek nga jëm. kon foofa rek nga jëm. bëgg a xàjjale foofa nga jëm. ku bëgg a xàjjale koo nga jëm. kon. kon. liñ ciy teg. liñ ci teg. ñu ngi leen di neel. liñ leen di neel. mook sëriñ Touba. mook sëriñ Touba. El Hadj Malick ak sëriñ Touba liñ leen di neel. te. te. ku baax ku baax. ku baax. waxuma waliyu. waxuma waliyu. ku ko neel rek. ku ko neel. nga jëm ëllëg nga jëm ëllëg. ku ko neel rek. ku ko neel sa gimiñ sa gimiñ. sa dañ ciy sol beteex nga dekkaale ko. dañ ciy sol beteex nga dekkaale ko. nag loolu lu mat bàyyi xel la. nee na loolu lu mat a bàyyi xel la. loolu fi ma ko teg. loolu loolu fi ma ko teg. damay dégg ñaare. day dégg ñaare. ñu naan tijaan yi dañoo bañ murit. ñu naan tijaan yi dañoo bañ murit. loolu nekkut. te loolu nekkut. buñ ne tijaan. buñ ne tijaan. yëpp dem Tiwaawan. xel yëpp dem Tiwaawan. dem ci maam Alhaji Malick. dem ci maam Alhaji Malick. kon nag. kon kon nag. buñ neelee Alhaji Malick loolu. buñ neelee Alhaji Malick loolu. te waxu ko. te waxu ko. te waxu ko. te waxu ko. moom digganteem ak Serigne Touba. ndax moom diggam ak Serigne Touba. dara doxu fi. dara doxu fi. Serigne Touba itam. Serigne Touba itam. buñ dee wax. buñ dee wax. dañoo bañ murit. dañoo bañ murit. Serigne Touba lañ bañ ndax Serigne Touba mooy yoon Serigne Touba moo tax ñu naan murit. de Serigne lañ bañ ndax Serigne moo tax ñu naan murit. kon nag moom nga ko neel. kon moom. moom nga ko neel. moom kon moom nga ko neel moom. moom nga ko neel. moom nga ko neel. wàllu loolu rek ma ci waxoon sànq. kon nag wàllu. loolu ma ci waxoon sànq rek. kon nag wàllu loolu ma ci waxoon sànq. rek mooy li nekk. mooy li loolu mooy li nekk. kon nag. képp ku daa wax. képp ko daa wax. na ko tuub. na nga ko tuub. ñi ko waxut itam. ñi ko waxut itam. waxati mukk. buñ ko waxati mukk. buñ ko waxati mukk. buñ ko wax buñ ko waxati mukk. ndax sëriñ bi. ndax sëriñ bi. Alaaji Malick. moo ko Alaaji Malick. bokk ñoo bokk seen bokk. ñoo bokk seenu bokk. ñoo bokk lislaam ji. ñoo bokk lislaam bi. ñoo bokk diine ji. ñoo bokk diine ji. ñoo bokk waxtu yu juróom. ñoo bokk waxtu yu juróom. ñoo bokk weeru koor. ñoo bokk xaaj koor. ñoo bokk xaj makka. ñoo bokk xaj makka. amut teqalikoo. amut teqalikoo. amut teqalikoo. kon nag loolu rek. daal lañ bëggoon moom la leen bëggoon a xamal moom sëriñ bi. ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. jërë ngeen a jëf sant nañ la bu baax nag nee na sëriñ bi nee na sant na bu baax. boo yeboo itam boo yeboo. nee na boo yeboo itam. seen xel dal bu baax a baax a baax. seen xel dal bu baax a baax a baax. ndax. ndax. am na lu sëriñ bi def. am na lu sëriñ bi def. loo xam ne lii. loo xam ne lii. war naa dalal seen xel. war naa dalal suñuy xel. te waxtu wu nekk. te waxtu wu nekk. mu ngi rot ci moom. kon nag. na sax ci ndigalam rek. nan sax ci ndigalam rek. fas yéene bàyyi ay tereem. te fas yéene bàyyi ay tereem. te xam ne loolu te moo ñu ko defal moo ñu ko defal. jàmm rek fi am. jàmm rek ka fi am. jàmm rek ka fi am jàmm rek ka fi am. ko benn laaj Mbàkke. waaw. yaa man ajaaba man istajaaba abli ijaaba fi sanni daa i. xanaa da nga koy neexal mu noppi sax. <laughs> <laughs> waaw kay tàngal baax tàngal baax na ci baat. ay waay waaw kay leen filmé lii. <laughs> ñu ngi koy filmé kay. filmé baax na tàngal bëgge <laughs> moom kay ci kanam du ko dem ci YouTube bi fekk fa loolu waaye njàng mi de Oustaz Mbaye Oustaz Mbaye yërmal Sénégalais yi lay déglu. Oh, bàyyi ñu xel ñun say nawle lañ li metti na lool ci ñun. waaw Oustaz waaw. la akhiriya. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. introduction rek. mu bismil ilaahi ñu waaw. Hmm. mu ne yéen mu waay cey su ma ko doon firil su ma ko doon léebal sëñ Mbàkke di ko ko mm-hmm. misaal mm-hmm. dañu naan dafa am ñeenti kaat kaat yu gaare ci buntu kër gi mm-hmm. ñeenti kaat kaat yu gaare waaw hmm. léegi occasion lañ koy jaay ñeenti kaat kaat yëpp mm. boo amee million am leen waaye nag comme il est onze heures trente-quatre su midi du ko jarati day gën a yokk su ma ko sumu dee. waaw li seen morom lay jar lay jar. Hmm. Hmm. nga daan <laughs> ah. Hmm. ay Mbacke fooy jëlee 4 millions. waaw ndeysaan rek suñu Abdou Mbacke daal ne asalaamaaleykum Mbacke ngi fi. wallaay Mbacke bàll nga ne waaw mu ne 5 millions yi de. yow laa ko doon indil. waaw matal na. jaar na waaw damaa dama koo xalaat rek. yëpp mat très bien. <laughs> sëy. waaw ah. loolu loolu kon moom la ñuy déggee ci bismil ilaahi yan moo lu xaar jeex na bismil ilaahi yi mooy yaa ngi xalaat ne fan lay jëlee 4 millions yu mhm. yi ma jënd oto bi mhm. yan moo lu xaar mooy si na jox la 5 millions mhm. léegi nag bilaa ma naay wala tiyaay ab li tilaa maara laa nangam nag wallaay ba mu begg yëpp foofu yëpp yëpp ndeysaan ndeysaan wallaay léegi nag ci biir nag mu ne yaa man ajaaba tey man istajaaba habil ijaaba fi sanni daay seetal ma lii rek oh waaw loolu daa mel ne ak ñaan la oustaz. waaw parce que xëbil ijaaba fii sanni daal. waaw yaa man ajaaba. waaw yow mi nga xam ne yaay wuyu. waaw man képp koo xam istijaaba nee na la wuyu ma. Mhm. man mi kon xëbil ijaaba. wallaay. fii sanni daay lu ko jiitu nag def na ko jawit zakaa yi. waaw bëgguma laa ñaane li la ni ma li la gaa yi daan ñaane. waaw dama la bëgg ñaan lu la kenn musta ñaan. dëgg la parce que. ngeen dal di xam ne borom Alioune Sall ñu di ko bu baax ndeysaan eh, day ñëw ci télé bi lu bare bare bare hmm. bari ngir xam ne këram la eh, sëñ Mbàkke si la maa ngi koy nuyu bu baax a baax waaye si Ablaye dafa dëgg li doon wax léegi ci ñaan yi mu doon li sëñ bi di def suñu borom ci ne nee na bu ne woon bismillaahi na yéen muluwaay rek doy na fa hmm. ndax introduction bi rek doy na sëkk dañuy ñëw ci titrage yi ñu doon waxtaan sànq ci mm-hmm. mawaahibu naafi' fii madaa'ih saafi' waaw lan nga ci commentaire rek xam nga firi bu rafet la ko firi mm-hmm. ci ñi dégg balaa ko mm-hmm. xam nga bismil ilaahi yan mooluhaay ñu daa wax ne bu ma tàmbalee ci yàlla rek ci la may yi commencé doon dama tàmbali ci sama borom rek <laughs> bismil ilaahi rek yan mooluhaay samay may commencé di doon waaw loolu la la bëgg a wax nag ni la su la ko doon misaal tey jii mu ngi doon ku doon lijjanti un million rek. Mhm. ñu ne ko heure far ñu nuyu ko far ko jox ko cinq millions. Mhm. nga xam ne tey li waroon a jafe. Mhm. moo far yomb yombin woo xam ne daa àndale mbetteel. waaw pour wane ni kon ci yàlla rek a jar a nekk. sëñ bi wane ni man daal bi ma duggee ci yàlla door rek laa def. may yi commencé tuur. moo tax mu ni jaratul ñu dolli leen loolu doyoon na ci woy yi. bismil ilaahi rek yat moo lu xaay. Mm, tamay yàlla yëmul fenn. mu ngoog yàlla boo tàmbalee rek. mu commencé laa boo ca saxee nag. dootoo tàqali ko xew mhm. mu dem nag yow yàlla mi nga xam ne yaay wuyu ko la woo mhm. woo naa la jox nga ma xéwal yoo xam amatul jeex mhm. kon du ma wërati fi kenn du ma dem fenn ci yow rek laay farto waaw c'est que bu rafet la ko firi boo xam ne maanaa bi la indi ndeysaan waaw moo tax mu indi ko ci carte introduction bi ndeysaan jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop Bichri eh, xam naa sëñ Aliou Diouf moom sëñ daam dañ koy leb ba àjj àllarba ji di ñëw waaw danañ ci dugg ci lu yaatu nag insha allahu taala maa ngi doon bëgg dugg sax ci Cheikh Abdoulaye Dieye yal na ko yàlla yërëm te dolli ay leeram Euh, Cheikh Ablaye dafa liggéey liggéeyal sëñ Touba liggéey bu rëy. Mhm. dem yóbbu lislaam foo xam ne baatub laa ilaaha illallaah musu faa jóg mu tuubal leen def leen ay murid saadix ci ay dar yu yu wuute moo tax euh, tey ma bëggoon ñu fàttaliku waaye incha allah àllarba ak jàmm danañ ci ñëw euh, sëñ Malick xam naa ne yow moom duma la laaj ay jàng ak yooyu ndax nun xam nañu ne bi ñuy nekk ay tuut tànk ci tuubaa bariwul baas booy romb te duñ leen ne sëñ Malick faa la koy jàng. Mhm. bari daa nañ topp sam njàng ci man gi waaye woyaf gi. ak ba ko fekk rek jàpp nga ni sax moo la ëpp wàccuwaay loolu ñëpp la ko seddal koo dégg rek dalay wax ne mhm. invité nga ku mën a jàng tey tey njàngum sëñ Malick Fall ba nga dalee jàng ba léegi ndax jot nga génne kaset wala kilip ak yan air nga yëkkati yoo xam ne dalee leen lii moom ku ko dégg xam ne lii airu sëñ Malick Fall la bu yàggul rek naa waragut a mat sax deux mois. xasaayit gi ma doon jàng léegi. li ma la wér bu ñaan. bokk na ci leen mujj jàng baat. ku ne Abdou Aziz Diop. moo ko arrêté rek. maam sëñ Mbacke moom sëñ Laal Baara. ak sëñ Cheikh Baara la. minti bi sax kale lu jiitu loolu jàng naa band ci Moussa Fall mu daal di Moussa Fall mm-hmm. moom Sadiq jàngoon naa ko antarab bi antarab mm-hmm. bi aw la woon waaw jàng aw ak mm-hmm. taxmis fi nii bii ma doon jàng jàng naa bare bare nga koy jàng te maa rajo si am nga ci sa ay erreur bopp dama gis ni erreur mag ñi da laa da ñor lool. ndax am nga ci ay yoo xam sa erreur bopp lay doon. comme comme bu mel baa bi nga ubbee waaw. Mhm. Mhm. te ni daa nga leen daa nga roy Serigne Ablaye Seck moom lool. waaw lool moom la ci daa génne. Mhm. ñu jógee ci Serigne Baraka ñu daa lay fonk. Mhm. Serigne Ablaye Seck laa roy. Mhm. daa jëm daa jàng. fi ngeen ñu soxla dama ci jàng. xale yi ku ci jàng fi ñoom lu neex rek. kon dalee Serigne Khadim Gueye ba ci wàcc suuf ñëpp. Serigne Ablaye. daa jëm lay jàng. maa ngi profité sama ñaari wéy jëm nag. ndeysaan ziar leen bàyyi Cheikh Fall. ndeysaan soxna yu mbay. ndeysaan moom ñoom la yor Serigne Sotomo. ndeysaan ndeysaan. xeeru mag ñi daan rajas kan moo la ci gën a marqué koo xam da toog ba yàgg di ko jàng di ko yëg. waaw Baye Baye Moussa mhm. mhm. ah, jàng rum mhm. naa. waaw. waaw Baye Xaalis nga ko rajas. comme nan. yallaahu ya rahmaanu ya rahiimu. يا بر يا كريم يا عزيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيم عجيلة الله بالمخزار قد غديات صلى بتسليمه عليه امين وكن أمامي وكن خلفي وكن وسطي وبي يميني شمالي يا رجل يكني وكن لي الدار وكن ماحي وكن لزائغا فوقا مرامي بكن وجل بجاي عياتي زافيه laka bii maajur daafiya ndeysaan tabarkàlla man nga ko am na ko ne ma léegi bàyyi sëñ waat jekku nga ko lool waaye moom aw nga ko daan jàng moom ah moom rajas lay doon waaw bismillah ba loon ci barkeelal bismil ilaahi anuluhaay bila manaai walantihaai hamdan li rabbi xayri murabi xad rama xalbi bi liqtidaay laa sukori bi la kufori wa wanasi tubaarkàlla tubaarkàlla laa jërëjëf sëñ Malick Fall euh, sëñ Malick Fall euh, invitation bi ñu bari bég nañ ci ñu baree baree bari ñu ngi may message yi wax kontaante guñ ci am ndax sa taxawaay ñëpp nag ñu ngi seede sa baax ak sa woyof man day def fu ñu dajee ci mbooloo rek sëñ jili sëñ Cheikh da ngay gis dalay jóg maanaam jox la yitte joo xam tolloo ni sax te ku ne xam na ni xasida yi ci lay yëngu waaye xam naa sama question bu mujj rek mooy tey eh, bu nit jógoon rek ne man de bëgg na maa ànd ak sëñ Malick liggéey ci xasida yi tey lan nga xalaata dolli ci xasida yi xëy na kaset boo bëgg génnee wala wala lan nga ci xalaata dolli tey loo xam bëgg nga koo réaliser. waaw. man bari mën naa ba lool. Mm-hmm. xam nga léegi daanaka moo ëpp jàngale yi ñu ci boo xam ne nga def alaaj mbàkk yi muy def ko ak ñeneen jàpp ci liggéeyu xasida yi ndeysaan ndax xasida lu ko gën a mën a tosaan moom na ku la bëgg la alaaj mbàkk yi waaw moom la lay déglu moom mhm, mhm. am na bis ajuma yi gars yi mhm. ma jàng ba noppi. Mhm. mu wax ca saal ba kii moom man maa war ni jàngatu si mu taal. ndeysaan ndax toog naa muy jàng sëñ mhm. mu seeral loolu. ndeysaan waaw. sëñ xaarit boole ma lay wax. léegi may ñëw ak sëñ Abdou Samad. ak njabootu sëriñ bi ñëpp rek. ñoom ñëpp kenn ku ci ne. ñu ngi may wax ni ma ba ci sëñ Moussa. waa Guèye na nga doon dal gi te doon yar bi. ndax sa waa yeneen yërwul yoon. waaw sëñ si loolu maa ngi koy maa maa maa maa ngi xaari mag may message rek sëñ Abibu Jóob ñoom ñëpp sëñ Seex Njaay sëñ Seex Njaay nee naa leen euh, murid yëpp ko war a ñaanal waaw ah, ah sëñ mm-hmm. euh, na mm-hmm. ñëw ndeysaan waa kër sëñ bi ñoom andi kon la Abibu sama xarit ak asfal mm-hmm. mm-hmm. ak ñoom Saamu mm-hmm. Baara Jabay ndeysaan Matar Diop ñu wax ni ma sëñ Maxtaar waaw bu baax kay bu baax a baax sëñ Maxtaar sama xarita wallaay wallaay sëñ xaadimati lay ma bàyyi la nga gërëm ñi ngay ziyaare rek su ko defee sëñ Ablaay ñëw ziyaare ñu door a tëj jotaay bi di ñaan sëñ Cheikh Bara Mati la yan yàlla doon leer amin amin amin ñoo wax xasida laa koy def ëpp mooy jàng laa koy sol mhm. ak sëñ sëñ xaadim boole mii mhm. sëñ Abdou Samad njabootu sëñ bi mhm. sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ bas sëñ jiili ak bàyyi saal kër ma xalaat ñun ñëpp ñu ngi leen di siyaar te di leen ñaan ñaanal saa borom guddal seen fan dolli seen wér amiin di siyaar mbooleem waa Guy Mbind sëñ mm-hmm. Cheikh Bara Laat sëñ Cheikh Corom sëñ Cheikh Bara Laat nag ma ko ziyaaral baax sëñ Sidim Sëñ baax te nekk a Karim Mbacke Bari léegi dañ tàggal koy ndokk leen sama loxo la jàpp ni ma yàlla na nga am ndam Karim Mbacke Bari ay rakkam yëpp ñoom sëñ Cheikh Mbacke Abdou Aziz Ah, tey ji la seen wéejur wa ñoom soxna may ma may maam awaak soxna may may mu ma awaak ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar mhm. ak alaaj baax yoo xam ma ne ci barab ba mhm. bi may ñëw la ma lana ma nag ma nuyul sëñ am ndeysaan ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar baax soxna maam ami Mbacke moom sëñ Laat Baara waaw soxna Baara sëñ Cheikh Baara Karim soxna sama xarit Cheikh xarit Jóob moom daal jox na ma ay barkeelu yoo xam ki Seex Sidil Muxtaar la jógee soxna maam ami maa ngi koy ñaanal baax a baax a baax Abdou Aziz Mbaye léegi la naa ma nuyul ma sëñ am Abdou Aziz Mbaye sama jarbaat ak Alaaj Jaaja Mbaye ndeysaan ak Alaaj ñëpp waaw ba Jaaja Mbaye mu mag ak mu ndaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaar Alaaj Medoun Fall Alaaj Medoun maa ngi koy siyaar euh, di sant nag soxna soo xam ne xam nga bu baax soxna Momi Kébé ah kooku ñun ñëpp a koy sant sama xarit la lool kooku moom barki démb danoo daje mm-hmm. kër sañ Seex Sey mu sëñ Soyibu mm-hmm. ñu may nuyoo léegi moom ni ko kii mooy magu mm-hmm. Alaaj Medoun Fall alaaj mbirum nag daan ne ci wàllu wee mu ne ci wàllu mu daan mu daan ma joxoñ daan ma mbaa xam nga ne wàllu wi nga nekk gën mm-hmm. mu neex ndeysaan mu neex ma lool muy ku baax ndeysaan di siyaar tamit sëñ Medoune Samb mm-hmm. moom Baye Modou Mbaye soldal sama mm-hmm. xarit ah. ak sëñ Nasiroo ak sëñ Amadou Samb bu daaroo ñëpp ñu ngi leen di siyaar ndeysaan sëñ Sidi Ndiaye xasida nee na mi ngi lay nuyu sama xarit la ma bàyyi la nga joxe coordonnée bu ñu la mën a jaa sëñ Paate may laajaat léegi sa numéro su ko defee ñu dem ci sëñ Ablaye waaw sama numéro 77 la 664 99 45. 77 664 99 45. dëgg la waaw jërëjëf euh, sëñ Malick Fall xasida bu Touba ñu di ko gënam bu baax a baax euh, di ñaan ñëpp nag gën ko doole taxawu ndax moom bi fi Cheikh Sidil Muxtaar nekkee la mu féetewoo mooy xëy di ko yëkkatil xasida yi. te loolu bokk na ci li sëriñ bi daan bége lool kon nag taxawaay boobu la am ba léegi sëñ Ablaye ma bàyyi la ngay sant xam naa ne tey moom sëñ Maar Seck mi ma yónnee ay sant ci yow sëñ Maar ñu ngi koy sant bu baax borom borom verre yi borom verre yi lunette rafet yi waaw tubaarkàlla ñu koy sant bu baax di ko di ko ñaanal mhm. léegi rek ci marché Thiaroye ndeysaan am na mbokk mu naan ma Euh, yow sëñ maar. Mhm. day defar ay lunette comme moom. damay dégg nga tudd sëñ maar ma ne ko waaw moo ñu ko lebal de. waaw fu ñu toll tudd ko ndax. wallaay wallaay ñu tamit tubaarkàlla. moo ñu taxaw wallaay di nuyu waa marché Thiaro yëpp. Mhm. waa bel loxo yi seen pàkk ba. Mhm. di nuyu sëñ Ousmane Ndiaye. Euh, taalibi sëñ Mbàkke Madina foofu ci marché caaro yi. Euh, di ko nuyu. njaayeen boobu nga xam ne ay carottes ak ay supame rek lay toppatoo. ndeysaan ñu ngi koy nuyu di ko ziar ak rakkam sëñ Jiili Ndiaye. di leen ñaanal bu baax. sunu borom dolli seen sutura nuyu sëñ Ndiassé saar ñoom sëñ Fallou Diouf ñoom sëñ Seex Kebe Belloxo ñu ngi nuyu mbaa marché ba yépp dem ba Colobane nuyu soxna Maram Dieng suñu soppe boobu di setu sëñ ma yaa suñu ummi Dieng hmm. ñaari tissu yu rafet la ñuy jox di nuyu waa marché HLM ñépp nag waxoon naa ko léegi sëñ Abdou Lahad Sylla waaye di nuyu bu baax alaaji ma faal faal mu sëñ Modou Awa Balla hmm. mu ngi koy siyaar di ko ñaanal di nuyu sama soppe euh, monsieur le ministre Arouna Koumba Ndoffène Diouf maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal di nuyu sëñ Ousmane Gueye suñu soppee boobu ci mbuur mm-hmm. mook sëñ Cubb Gueye sëñ Cubb Gueye jàmbaar yi sëñ Abdul Karim maa ngi koy siyaar di ko ñaanal waaye ba tey maa ngi nuyu sëñ Moustapha <coughs> Seck euh, di nuyu sëñ Ndaam Abdourahmane loo suñu soppee ak soxnaam soxna Roqaya Ndiaye di leen ñaanal bu baax nuyu colonel Abdourahmane ba fële ca port nu ngi koy nuyu ak waa port yëpp di beral nuyoo Cheikh Moussa Camara mu sëñ Saliou suñu soppe boobu din topp mm-hmm. sant bu baax waa kër sëñ Saliou Touré mm-hmm. keroog li mu fi wax sëñ Xaamidun mhm. euh, ndeke bàyyi nañ ko xel. war nañ ma Serif Alwali Dieng ñoom. wallaay sëñ moom lu sekk waaw bëggoon sax wax ko ci ah, moom. wallaay euh, wallaay demewut loolu. wallaay wallaay waaye ñoom seen baax ak seen teddange maa ngi koy nuyu di ñaanal suñu baay boobu mu yàgg fi te wér. Mhm. ñaanal njabootam gépp ñaanal taalibe yëpp ñu féete mhm. Thiès di leen nuyu di leen bëggee. Adja Mbène Ndoye ñu ngi koy nuyu Thiès. Pape Doumbia ñu ngi koy nuyu foofu Thiès. Mhm. soxna Aram Diop assurance maa ngi koy nuyu foofu ci Thiès. Mhm. waaye maa ngi nuyu baax soxna na koy xool bu cees mhm. nuyu euh, sëñ Moussa Diop. waaye di waajal nag jàngi sëñ Moustapha Seck jàngkat. waxoon naa la ko fi keroog. dëgg allah ñoo koy waxtaan si. wallaay wallaay wallaay ñun ñaan ñëppay dem incha allah mbokk yooyu bu baax a baax a baax. di beral nuyoo bu baax nag euh, Ndiagne Diop. suñu soppe boobu ci Bambilor ah monsieur le maire waaw monsieur le maire waaw monsieur le maire keroog danoo woo maag ak saa daggal lu ay terrain waaw teraanga yooyu la def kon yàlla ko yàlla fay kooku moom loolu mooy yitteem waaw sa digg ak moom wallaay ndeysaan ñu ngi koy siyaar bu baax junni la ak cinq sëy borom tawféex ñu ngi koy nuyu mhm. di ko ñaanal bu baax a baax a baax mhm. naka noonu Baye Matar Mbuub mhm. di rakk ci Serigne Mbuub CCB maa ngi koy nuyu nuyu Serigne Mbuub tam Euh, beral nuyoo mbokk yi ni topp ma njaay njaay mm-hmm. nekk fële ci pàkku làmbaay nee na mu ngi lay jotal nuyoo ndeysaan Mouhamed Thiam ca Ziguinchor mm-hmm. maa ngi koy nuyu di ko ziar sëñ Mouhamed Thiam woo na ma démb sëñ Ablaye ku baax a ngi noonu ku baax na ma démb rek ndeysaan yàlla ko yàlla dolli teraanga nañ ma ko ñaanal waa Ziguinchor yëpp wallaay ndeysaan ñu ngi leen di nuyu bu baax beral nuyoo Ibrahima mbay Mm-hmm. nekk foofa ca Bambilor waaw mm-hmm. ca mairie bu Bambilor maa ngi koy nuyu mooy bu baax a baax a baax ndeysaan naka noonu Cheikh Ibrahima Fall sunu soppe ca Jandeer sëñ Ibrahima Fall Murid Sadikh doonata émission bi nag borom ko ñaanal nag tawféex ci barke maam Cheikh Rafal soxna maam Jaara Diop ñu ngi lay delloo nuyoo nee na ma da xaw a jeex mbaa du dara du dara fan yi maa xaw a rajeunir rek nekkaat tuuti xale nag waaw sport bi la waaw maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar karaté ñaanal mu nga fële ca jëppal ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko bégee di nuyu sëñ Moustapha Ndoye bu seeti ceinture noire la laa la wax. waaw ah. ko gis yaakaar ne da nga koy rafetlu ci mbedd mi di ko taw a toogee genre Fat Diallo yi nga xam dañoo mën a faat da ngay daje waaye ceinture noire la. waaw di sant sëñ Dame Ngom sa ngeen sor moom it. sëñ Dame Ngom sama xarit nuyu kuréelu soppee sëñ Abdoulaye Diop Bichri yëpp. wallaay ci njiital sëñ Abdoul Khader Fall. wallaay maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen bëggee. Euh, mbokk yi jotale fii seen ziar bari na lool sëñ Xaalis. ndeysaan ndeysaan euh, colonel Ousmane Gueye bu police ñu ngi koy nuyu colonel Ousmane Faye bu douane ñu ngi koy nuyu soxna May Siise ca Daarul Moxti suñu soppe boobu ñu ngi koy nuyu di ko bëggee bu baax a baax moom mm-hmm. mu ngi topp émission bi maa ngi lay jotal léegi nuyoo soxna Faama Samb léegi lañ daje ci wallaay wallaay Malick bi mu ngi nuyu ma sëñ Xaami wallaay wallaay ñu ngi koy nuyu bu baax jërëjëf di sant nag sëñ Malick ci jàng mi waaw ñu ngi lay sant bu baax ci njàng ndeysaan ndeysaan di la ñaanal bu baax a baax wallaay wallaay sëñ Sidil yóbbante la nuyoo ci waa kër ga yépp nag ndax moom njabootam ñu ci bari samay xarit lañu wallaay wallaay ñoom sëñ Jiili ñoom sëñ Samat wallaay sëñ Habib Diop sëtam bu baax boobu wallaay ñëpp waa kër Seex Ñaan Diop bi wallaay leen beral ay nuyoo beral nuyoo tam sëñ Modou Ndiaye Assane ndeysaan ci woyof wallaay fii laa ko fekk rek mu doon gerte caaf laa ko fekk mu yor ko ma ne ko jógoon dem sant Fatimata Diallo bu baax nag taalibe Seex jërëjëf kontaan ci yow waaw kontaan nañ jërëjëf Sëñ Ablaye ñu gërëm ko bu baax a baax li nga wax mooy dëgg sëñ Modou njaay nit ku baax la tey woyof dama koo sonoon lool waaye jàmbaar dëgg la te te te baax mm. euh, des nga dégg Jibril Ndaw di wax ay bayit waaw làkkin lisaan yi euh, wax lu lan xoomal déedéet làkkin lisaan wax lu lan mel xat xoomal lan bayit woowu muy faral di wax mm. yooyu muy dégg yëpp ci sëñ Modou Ndiaye Assane la ko dégg dëgg day dem yoru kii di bind bu ñuy toog jébél ndaw defar faas yi ba mu jekk nga jàpp ne kii ab muallim lu boo xam ni <laughs> waaye day ñëw sëñ Modou Ndiaye for aw bëy rek lakkal nit ñi dëkk bi dëkk bi ngi koy ziare baax a baax eh, ñu ngi ziare sëñ Khalifa Ndiaye bay jonn ca Gambie sëñ bay jonn wallaay di nuyu tam euh, soxna Assu Diagne sama soppe bu nekk ca Washington mhm. DC ca Amérique ndeysaan nuyu moom it rate émission bi wax na ma sëñ Hamidou ndeysaan yaag moom dama leen topp chaque semaine ndeysaan nuyu soxna Fanta Camara ndeysaan nekk ca Rennes ca France ñu ngi koy nuyu nuyu moom it bu baax a baax. tubaarkalla euh, ñi ngi nuyu baax sëñ Khalifa euh, euh, bi nekk Touba xam ngeen ni ajjuma ji jàll ndeysaan invité woon nañu ñoom it jotaay bu am solo foofee ca Touba ca koñ ba ñoo ngi leen di ziare baax ñoom sëñ Dame Touré ñoom sëñ Xabaan Jaw ñu ngi leen ziar soppe yi ba ma ko tegee ci loxol sëñ Mamor Dendey ak sëñ Dame Ngom ca Ziguinchor soxna Marème Sarr soxna Say Sarr Say Sarr maa ngi leen nuyu Eh, ñoom Khady Sakho ñoom ñëpp ñoo ngi leen nuyu ak eh, eh, Assou Gueye Assou Mbène ñoom ñëpp ziar nañ leen ak mboolem ku bokk ci groupe bi waaw wallaay wallaay di nuyu baax soxna sunu sunu mag soxna Jatu Diop mi ngi fii ci golf muy sunu mag nu bokk waajur waaye muy ku baax ndeysaan di ko ñaanal yàlla taxawu ko moom njabootam soxna coro ñoom ah Adja Fàññang Fàññang soxna soxna baay Seex ak sëñ du ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar Alioune Badara faat ñag laa may bàyyi seex euh, ndax dama laa joxoon ba bisri may jox la ko àddiya daanu jël nga bañ léegi jox naa la bàyyi cheikh mu ndaw bàyyi cheikh dëkk ngaay laa ko jox euh, tubaarkàlla euh, ñu ngi nuyu bu baax a baax sëñ Mouhamed Thioum ma ngi ca Philadelphia sëñ Mbacke Thioun sëñ Mbacke Thioun waaw ma ngi ca Philadelphia maa dem ba foofa maa dem foofa nee na ma nuyul ma bàyyi seex Balla Samb sama xarit la sama mbokk la euh, mi ngi may jotal ay nuyoo bis bi ñuy waajal fa fee ca. Euh, Tiwaawan fi ñoom Amadou Mbengue waaw bisub sëñ Maru Bëggey ak euh, soxna Soda Diaw. dëgg la soxna Bintu Diaw. waaw bisub sëñ ma sëñ Maru Bëggey bisub sëñ Maru Bëggey bi ñuy waajal moom la may wax nii. ndeysaan ñu ngi ko ciy ziyaara baax a baax a baax a ak njaboot sëñ Maru Bëgg yëpp di nuyu soxna Aji Diop ma ngi ca Floride. di ko ñaanal ma ak soxna Faama ak yaayam ak waa kër ga yëpp ñu ngi leen di ñaan yàlla defal leen tawféex waaye sëñ Ablaye di nuyu waa groupe kenn du sëriñ bi. waaw sëñ Mamadou Thioune sunu yaay Awa maa ngi gis léegi bataaxalam di ko ñaanal moom it ci taxawaayu rafet yi soxna Ndiaye Sy bi ca Belgique soxna Anta Samb ca euh, Texas soxna Anta Ndiaye taalib Cheikh Abdoul Ahad soxna Mame Bello euh, euh, soxna su koy soxna Asugawaan Diop mi ngi yónnee léegi bataaxal ak soxna Bintu Jaxate ak soxna Sukayna Dimme ma nga ca fële ca Louga ak soxna Kumba Saaxo sëñ bàcci fay ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Yaasin Bamba Almuntaxa xam nga keroog damaa waroon ñëw ci bis bi maa ngi koy leb waaye dinaa ñëw mook soxna Ndew ñoom ñëpp danaa ñëw incha allah soxna Sophie Ndiaye eh, honorable député maa ngi koy nuyu di ko sant ndeysaan ah, bari ci dem teraanga yu bari la ma defal wallaay ah, di ku baax nag wallaay ku baax xam ne mu taxaw réew mi wallaay nekk fële ca CFA maa ngi koy nuyu jaar ci moom nuyu almami ndeysaan ah, di ko ñaanal bu baax Abdou Samad moom sëñ Sidil Mokhtar sëñ Abdou Samad moom Cheikh Sidil Mokhtar baax a baax a koy ñaanal Saliou Mboup sëñ Saliou Mboup waaw sëñ Malick Fall waaw xam nga lu ma neex sëñ Malick am benn waay boo xam nee na la jàngat jàng waaw nee yow la daan topp muy sëñ Mbacke Touré xasaay eh, loolu ni ma neexe dëgg barikallaaw ni ma neexe loolu maam maam moo ni woon sëñ Tuubaa joxal joxal ndaw ñi mag ñu doyal dama bëgg nga koy noggatu ba tey rek <laughs> daf maa hmm. sonal lool maa ngi koy ziare ak soxna Ndumbe sama doom daajal jël doomam bàyyile ma ko may ma ko eh, maa ngi koy ñaanal yàlla bu def ko mag eh, sëñ Mbacke Touré loolu sama xool sedd na ci loolu wax dëgg yàlla ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi bég ci moom bu baax a baax a baax ci loolu mu def Eh, sëñ Maodo ma bàyyi la nga tàggatoo rek su ko defee ñu jox dig di daje mbokk yi àndarba ak jàmm sañ Mouhamed eh, sañ eh, sañ sëñ Thiam sëñ Malick maa ngi koy sant bu baax sëñ Malick Thiam photographe lii mu def lu am solo la ñëw ngir jël nataal yi di ko wesaare waaye ñu ngi lay ñaan sëñ Touba defal la ci ay ndam sëñ Xaadim bu sëñ malik Fall maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare sëñ Jili laam tey sama sama jëwriñ sama président moo ñëw tey ci plateau bi sëñ Cheikh Sendra yéen nag caméra bi war a naawal ko ba ñu wane grand boubou bi mu sol bañ xam ne ñu ngi waajal ci moom loo am solo nag ndax moom nit ku baax la euh, di nuyu bu baax a baax euh, sëñ Xaadim Fall say gan gi ma indil waaye tey sunu waajur daa bokk ak ñun émission bi jàkkaarloo ñun duñu seetaan te gën ñoo xam li ñuy def bu fuuf muy bàyyi Cheikh Balla Samb di ko yóbbante nuyoo ci sama campagne sëñ Cheikh maa ngi félicité sëñ Abdoulaye Diop Bichri ci may ma nuyu sama baay bu baax mhm. baay Moussa Niang ca Tëngéej ndeysaan suñu baay la boo xam daf noo jàppale zahir ak baatin ndeysaan taxawuñu ci lépp ndeysaan ragaluñu fenn ragaluñu kenn ngir moom yàlla ko yàlla sàmm mu yàgg lool ñi jàppale zahir ak baatin amiin baay Moussa Niang di nuyu oustaz Souleymane Samb mhm. di ko ñaanal moom it di nuyu sañ Aliou Ngom ca Bambey mhm. ñooñu ñëpp dañu ñu jàppale ndeysaan di di leen di leen ñaanal baax jërëjëf sëñ Abdoulaye eh, kon sëñ Modou ma bàyyi la nga tàgg tàggatoo rek su ko defee ñu doon law antenne bi. Ah, waaw koy jërëjëf sëñ Hamidou noo ngi sant yàlla bu baax. ci teew gi ñu teew ci jotaay bi. jotaay bu ñuy waxtaanee eh, Serigne Touba. teew fa eh, ndimbalal yàlla la. ndimbalal yàlla kon nag ci sant bu baax xam naa yaa ngi tooñ léegi sànq. Eh, am na xaw ma jaar moom xam naa ne ndax xam nga démb suñu émission bi. Mm-hmm. muy muy daara bi. Mm-hmm. teewu ci ngir ñaari fan yi yëpp damaa xaw a libbër. Mm-hmm. maa xam damaa xamul tey lu ma indi fii ba. Mm-hmm. ba nga ba nga fekk ma fi xorma. Mm-hmm. waaye dañu xam naa suñ xarit boo gisee naa ne kii moom nangam. waaye daal na xam ne moom suñu am jóg moo for indi fi dafa maa forcé nag. Ah. dafa maa forcé mais mais yeggaloo xisa bi gerte caaf bi. déedéet gerte caaf moom yaa ko tuddee. ah xanaa sa xarit ci nekk rek waaye bu ñu génnee dinaa dinaa la ko <laughs> ñoo ngi siyaar bu baax suñu Cheikh Dia sunu doomi ndey dama nga fay ci tuwaay nekk mi topp jotaay bi si mhm. siyaar bu baax a baax sa xarit bi ma doon wax léegi soxna Bintu soxna Bintu jotaay bu baax a baax ah, ziyaaral ma ko tam xeer yi nga koy sànni nag nag ma ko ziyaaral bu baax a baax a baax <laughs> waaye nag moom moom xam na li ma wax waaw ndeysaan ñoo ngi siyaar bokki di siyaar sëñ Cheikh Balla Samb mooy itam li nga ko waxee teew ñëw wax dëgg li am na solo ñu assisté jotaay bi wax dëgg yàlla yàlla mu tàbbal ay bayit yu am solo bi mu àndal eh, eh, teew gi mu bi ak yéen ju rafet ji loolu lu am solo la yàlla na suñu borom boole defal tawfeex di si ziar di nuyu sëñ Ablaye bu baax di ko suñu soo Sow na nga koy jaajëfal bu baax ngi jotaay yu baax su waxtu ne daf nuy moom yàlla dogal daf na daf naa ne eh, cofeel mm-hmm. mm-hmm. lu yàgg te xaw ma ko bi ma ko xamee eh, daanaka mm-hmm. ak bi way juróom di nelaw yàggut sëñ sëñ Saliou Sow moom ku liggéeyal lislaam ku liggéeyal xam-xam liggéeyal xam-xam koo xam ne moom ma waxtu wu nekk rek jamono ji bu ko fekkoon euh, kàddoom faw mu jub. wallaay ndeysaan faw mu jub. ndax jamono bu nekk rek mi ngi mi ngi défendre l'islam waaye mi ngi défendre yoon mi ngi défendre sëñ Tuubaa tabarkalla borom suñu bët nit ñi moom leer jërëjëf jërëjëf bi siyaar bokk yëpp jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Modou Ndiaye euh, ñu ngi koy delloon nuyoo di nuyu waa parcelle gépp euh, di nuyu sëñ daam mi ñu àndaloon jotaay bi sëñ Khadim Ndiaye tasawuf maa ngi koy sant ak ki nga xam ne ni mooy sëñ Mamour Mbaye yoonu géej gi sëñ Soufa Kane Euh, ñu ngi topp jotaay bi ñoom ñu ngi leen di ziare baax a baax waa groupe kenn du sëñ bi ñëpp nuyu naa leen ñëpp ñi ci bokk ñëpp groupe 1 2 3 ak mboolem ñi nekk ci annexe bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu soxna ñaaña Diop ca Paris ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ziare euh, soxna Kumba Diop moom ma nga Paris ñoom ñëpp ndax seen taxawaay ak seen pas-pas xam nañu ko te it gis nañu jàpp gi ak taxawu gi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm euh, sëñ Ibrahima Koundoul di féliciter sëñ Cheikh Ngounda Gueye xam ngeen ni keroog dimanche da doon séentu gan eh, tuwaar kàlla eh, ma ngay seetu waaye yàlla na ko yàlla taxawu eh, te jàpp ko te def ko mag yàlla na ko yàlla def mag tuwaar kàlla <laughs> di ko sant di ko gërëm sëñ Jili Lam kon sañ Malick da ñuy tëjale suñu Sidi Muxtaar benn bayri rek bu ko defee sëñ daam mën a dugal seen rek ñu mën a yëkkate jotaay bi ànd ak sëriñ bi bàyyee di leen bàyyeeg sëriñ bi di leen ñaanal guddi jàmm sëñ daam noo ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di ziyaare sëñ Abdou Diouf moom président di nuyu sëñ Mansour Gueye jekk bàyyilaat yàlla leen suñu borom taxawu Euh, te sàmm leen ndax euh, ni ñuy sonne ci émission bi euh, gis nañu ko waaye nag yàlla na leen sëñ Tuubaa defal ak payu àddina ak alaaxira mm. jàmbaar lañ loolu wax dëgg yàlla yàlla leen yàlla taxaw bu baax a baax a baax sëñ bu maa ngi nuyu sëñ Abdou Samad Sarak ak sëñ naa Lam maa ngi koy waajalal bis boo xam ne moom it benn lay doon incha allah mm. kon ñu bàyyi leen sëñ bi naan leen laylal mahal baraka sëñ daam boo noppee na nga lekk mburoog caaf ñu leen sëñ Modou Ndiaye Assane doon yeggale nga yeggale ko <laughs> naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bisimilah. saxleera sarba baaw toor toor nga yaaraw njanaaw yamal xiyaam yal fanaaw jéggi siraat noo xarnu bi Seex Sidi Muxtaar yaa ma gënal mbooleem lu ma ma saak taalu bi fileeg fanu jëm ceebulu moom saabu taweere mépp tooy jurente bay bàyyi see xaadim boo del du booy ceebulu moom saabu taweere mépp tooy jirante bay bàyyi seex mu doy sa daram du booy cebalo moom saabu taweere mépp tooy jirante bay bàyyi seex abdu samad mbakke daram du booy sëriñ bi yaa tabe te am nga raxmaaw seex sidi muxtaar mbakke du xotti war maaw sëriñ muntaxa yal na fi yàgg téwér seex sidi muxtaar yéen yàlla dool der lu bët gisoon la bawoon ngeen taxaw déglu lii may wax borom tuuba ngeen dal di xam ne borom tuuba mooy borom tuuba